gàllankoor ci walu liggéey ak ci wer wérgu yaram l'islam amna safara ci lepp li motax sen radio RMD radio municipale de Dakar 95.5 FM andi leen àllarba bu jot 10 h ci goudi japp mini sen émission wadou kha l'âge, Modou Cissé mo len fay andil ñu gën ko xam ci Mara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

lolu nak di téré bi di karafil mu ngi ko ñew wéccé ko ci way ci lycée limamou lay fofu ki fa nek di ngeen ak mom ci 77 617 70 44 77 617 70 44 karafil téere baa ngi nii chance baa ngi nii xéewal baa ngi nii. yaa ma leen gënal ya ma leen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 yaa ma leen gënal yaa ma leen manaloo muhammadu rasulullaahi su la yàlla mayee baat bu neex nga mën a way te wayoo yonen dee nga ka ngay way dee na sa way wa niil na gëjoon naa di taalif ngir ñii di sàcc taalif te seeni baa ahasbillahi min aseytaani rajim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 بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو سميع حليم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين نيانون نان بروم بي توغي يان سن ايميسيون وضحا borom bi may nu ko tey di àllarba di mercredi di 8 rabiul awal 1437 waaye di 7 décembre 2016 noonu la nu koy ñaanee tàmbaleeg bismillahi rahmaani rahim yàlla kàttanal nu ban àggaleek alhamdulilahi rabbil alamin ñaan yàlla comme nanu ko daan ñaanee asakaay wax yàlla bu mu bàyyi ko si émission bii di Wadduha di sant yàlla bu baax nag ndax eh, jotaay gojoon nay am waaye lépp fa tabarak laa doonoon ngàntu yoo xam ne ngantu jàmm la sant yàlla bi nu toogaatee tey war a def ak yéen émission direct tey di dimanche 17 décembre 17 décembre 2016 nu nekk ci weer wu màgg nag ndax lu ko tax a màgg mooy خير الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم weer bii la gane woon àddina muy sabab loolu doon sababu nu war fee wettili konte ak kilifa doon koo xam ne kilifa la si ñun doon koo xam ne wëllëre la doon koo xam ne xarit la muy imaam Mohamed Niang nu fas yéene wettili konte ak moom ndax fa tabarakallah sunu tuddee gàmmu xel yëpp day dem si sallallahu alayhi wa sallama su ko defee mu fàttali nu lennat si axlaaqu sallallahu alayhi wa sallam bi nga xam ne bu bu'istu li utammima makaarimal axlaaq makaarimal axlaaq nga xam ne fi tabarakallah mel na ni luy xaw di tumuranke mu gën ñuy soññi gën ñuy dénk yoon ba nga xam ne bu nu fa jaaree fa tabarak tabarakallah sunu borom dana nu defal makarimul axlaaq kaxaadati xii nan ko daan defee tusu rek dana ñaan fépp foo xam ne sunu kàddu àgg na fa nu jàng fatiha jàng la jàppande si xul wallaahu ahad gannaaw ba nu ko defee xaddiya si sallallahu alayhi wa sallama moo doon xaddiyaay bépp neewu jullit boo xam ne ma nga barsaq ñaan yàlla beesal yërmande sa ñoom yàlla beesal njëgal sa ñoom yàlla leeral seen gannaaw di fàttali ko bu baax sunu wëllëre alxaaji Alioune Jonn yal yàlla beesal yërmande sa moom si barke weer bu màgg bi di rabixul awal di nuyu tey siyaara kilifa diine yi di leen ndokkeel bu baax ci weer bu màgg bi nu nekk di weeru gàmmu nanu aada woon di koy wax rek di ñaan yàlla yàlla yokk guddal seeni fan lool waaye di yàgg yàlla wéeral seeni cër fa tabaarakallah nu ngi nu ngi siyaar bu baax njabootu maam Seydi Alxaaji malik si di nuyu xalifa bi Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al ak ay rakkam di leen siyaara si saxru rabiul awal ndax fa tabaarakallah imaam gàmmu at yëpp la koy màggale waaye yàlla cëral na si lu bari Cheikh Seydi Al Hadj si di nuyu kilifa dina yëpp di leen siyaara fa tabarakalaa di sàkku seeni ñaan di seet way tawat yëpp comme nan ko daan defee di ñaan yàlla mi nga xam ne mooy saafi yàlla saafara tawat yëpp fa tabarakalaa ñi nga xam ne nattu dale na dab nu nekk ci prison it yàlla bettee leen ak ixlaas way tukki it fa tabarakallah nuy ñaan yàlla sàmm leen kër ñaan yàlla tamit sàmm leen àll fa tabarakallah di ñaan yàlla li ni wax salaam te muy jàmm yàlla yokk ko lool ci sunu réew bii di Sénégal ak ci réewu jullit yépp ñaan yàlla it yokk fi sutura fa tabarakallah nanu ko daan ñaane ñaan yàlla yombalal ñëpp tëdd ak tibb ak sangu fa tabarak laa di nuyu njabootu Wadduha xaa yëpp gannaaw ba nu nuyoo kër gi di rajo municipal de Dakar 95 point di nuyu kilifa yi fa tabarak laa di ñaan yàlla yokk ci kër gi xéwal yokk ñi fi yëngatoo ñëpp fa tabarak laa di nuyu bu baax Malick Sidibé fi nga xam ne moom la ñu jàkkaar loolu àllarba bu nekk fa tabaarakallaa di koy ndokkeel si passé foog itte bi mi am si nga xam ne bu émission amul it ñu bëri duñu koy sentir ndax passé fam fa tabaarakallaa nu ngi ko si ndokkeel di koy ñaanal yàlla may ko barke doxa tey fa tabaarakallaa dañ fi wettali konteeg imaam Mohamed Niang bu Caaroy waaye di fi mu nuy gunge tamit Malick Sock nga xam ne fatabarakala sunu jarbaat la di nuy jàppale si liggéey bi noonu la ñuy nuyoo kër ga di si jiital Babacar sise sëñ Omar Diallo di leen nuyu bu baax di leen siyaara di nuyu tamit e, sunu waajur yi nekk point e, di leen siyaara si gàmmu gi muy alxaaji Alfuseyni Sagna ak fatun Fatou ndjay di nuyu bu baax tey siyaare yi sunu jigéen di aja Aram ndjay bu Tëngéej nga xam ne moo nu nekkal ak sunu goro Mohamed Diop ñu ngi leen nuyu di leen siyaara di leen bubah di leen ñaanal di nuyu bu baax sunu jigéen soxna Jaara Mbooj nga xam ne moo nu nekkal Kër Massar fa tabarakalaa di koy ndokkel si gàmmu gi waaye di koy ndokkel si màggal gi nga xam ne la nu sunu jigéen soxna Kumba Ka nga xam ne nu nekkal Mbuur moom it nu ngi koy nuyu bu baax di koy siyaara di koy ñaanal fa la di nuyu tamit Mouhamadou Lamine Muntaxa nga xam ne si sunu njaboot la bokk Mouhamadou Lamine Muntaxa ba nu ngi koy nuyu bu baax di koy siyaara di koy ndokkeel si weeru gàmm gi di nuyu bu baax tey siyaara sunu mag di wëllëre di xarit di alxaaji xaadim rasul foto fa tabarakallah borom wadduha point org nu ngi koy nuyu bu baax di koy siyaara di koy ñaanal sunu rakk di Cheikh Ahmed Tidiane si Gadiaga moom it fa tabaarakallaa di sunu rakk nu ngi koy nuy bu baax di koy siyaara di koy ñaanal si weeru gàmm gi fa tabaarakallaa sëñ Baara Diouf moom nga xam ne moo nuy gunge di sunu sénérique moom it nu ngi koy ñaanal si xasida ba am solo boobu Muhammad Rasulullah yàlla yokk ko barke yàlla yokk koy xéwal niki noonu alxaaji Fàllu Cissé nu ngi koy nuyu bu baax di koy siyaara sëñ Riñ Kulibali Duudu moom it nu ngi koy nuyu bu baax di koy siyaara di siyaara fépp foo xam ne sappe wëllëre xarit ma nga fa fa tabarakalaa di topp Wadduha nu ngi leen di nuyu fépp fu si waay nekk di leen siyaara di leen ñaanal fàtte wuñu waa association Wadduha xam naa dinaa wax imaam mu yokkale ñaan eh, si seen eh, association boobu nga xam ne sappe yi wëllëre yi noo ko taxawal lépp it ñu jublu si solidarité seen biir ak dox mbokk fa nu ngi nuyu bépp membre boo xam ne mu ngi si du nuyu bu baax Serigne Mboup mi nga xam ne yàlla dafa def mu ubbi studio tuddee ko studio Wadduha moom it ñu ngi koy nuyu di koy siyaara di ñaan yàlla may ko barke doxaa xam naa si gàttal nuyoo yi dañ koy tënk ni foofu ndax eh, bàyyi kilifa gi mu nuyoo si nuyoo ba pare ñu door a dugg si seen. émission bu nuyo mu jox malik Sock mu nuyo nu door a dugg si biir émission bi yëgal mbokk ñi ni doog a dab ñëpp ne tey am nañ seen émission direct si kàttanu yàlla suñu demee ba 23h ak ay minute danañ mën a wettali compte ak ñun si émission bi kon imaam bismillah الحمد لله الذي علمنا ما به كلفنا والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين آمين بوكي نجلين دي نيو دي لين ziyaara جناو بنيو ba دي لين àq di weer wu màgg wii di weeru yonti yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam di nuyu kilifa yi nga xam ne itam ñoo ŋànk isaa bi muy rajo bi mm-hmm. commencé ko ca ka gën a kawe ba ci ki gën a suufee donte amul wallaay mm-hmm. wallaay ñoo subhaanahu wa yal na yàlla defal leen tawfiix amin amin defal leen najaax defal leen salaam amin amin ci barke ki nga xam ne amuñu kudul moom muy yont yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam El Hadj ñu ngi lay nuyu bu baax yow. wallaahi maa ngi lay fay. tabaarakallaahu di jégal ci gëj a gise gi ñu gëj a gise wallaahi wallaahi imaam waaye xat-xati jamono ku ne xam na ni mu tëddee wallaahi wallaahi ak it tabaarakallaahu yitte yi di am dégte lool nag si <laughs> ñu ngi nuyu itam suñu mbokku sëriñ soog mi toog ci suñu mm-hmm, wet mm-hmm, mm-hmm. di ko ziyaara bu baax a baax di ziyaara mbokk ko waxee muy Cheikh Ahmad Tidiane yi Cheikh Ahmad nuyu di nuyu mbokki taalibe yëpp di nuyu mboolem ñi nga xam ne ñu ngi déglu Wadduha والله والله جي بارك يون النبي صلى الله عليه وسلم نيغا كو واخي وون ليغي تام دي نيو كليفه ديني والله والله موي مبولم kilifa goo xam ne yaa ngi ci kanam mbooloo yi. wallaahi wallaahi. <clears throat> ñu ngi lay tàllal suñu ñaari loxo di la ziyaara. Mm-hmm, mm-hmm. di la balu ak waaye di leen ndokkeel ci weeru màgg wi. Mm-hmm, mboolem kuy borom xam-xam nga xam ne jotaay yonent bi lañ toogee. wallaahi wallaahi wallaahi. ndax al ulamaa warasatul anbiyaa. wallaahi imaam. loolu nag ñu mel noonu soo ko amee ci réew. booy tàmbali da ngay tàmbalee ci ñoom. mooy booy jeexalit nga jeexalee ci ñoom wallaay dëgg la kon yal na yàlla dëgëral seeni i taxawaay. amiin imaam ci gox yi fasantikoo yi ñu mën a nekk. Mm-hmm, mm-hmm. ñu ngi leen di ziara di leen ñaanal yàlla. Mm-hmm. di ñaan yàlla yàlla na yàlla def jàmm ci réew mi. amiin amiin imaam ci réewi jullit yëpp. ci barke yonent bi sallallahu alayhi kon sëriñ bi ñu delloo la gi ba ci kanam incha allah am na solo am na solo jërëjëf barakalaa fiik imaamul akbar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 yal na nu ko yàlla boole amiin yal na ko saa waroon defal amiin ci barkatu Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam amiin amiin di siyaara sunu imaam bii toog mm-hmm. di ko baax mm-hmm. di ko ñaal moom itam suñu borom dafa tawfeex wallaay wallaay ak barakatu ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñoo mm-hmm. siyaare waa daara ji bu baax ak borom daara ji ak waa daara ji. Mm-hmm. ñoo leen nuyu bu baax te di leen siyaare bu baax a baax. Mm-hmm. ci weeru tëdd yu ñu nekk. Mm-hmm. ñoo ngi siyaare Serigne Omar Diallo. di suñu wëllëre. di suñu naataangoo. bokk na ci daara ja. ñoo ngi koy nuyu di ko siyaara. ñoo ngi siyaare Serigne Babacar Cissé. di suñu kilifa. di ko ci barke alxuraan. suñu borom dafa ko tawféex. di siyaare bu baax suñu bàjjan. mën na ci kar gi di ñu toppatoo. wallaay wallaay. di ko baax. wallaay wallaay di muy sonn ci ñun. Mm-hmm. mu ngi ko ñaanal tawféex. Mm-hmm. di siyaare Serigne Khadim Rassoul Ndiaye. Mm-hmm. di sunu sawo bu baax. moom di sunu xarit di sunu soppee. nu ngi ko ñaan bu baax a baax a baax. sëñ Xaadim Njaay waaw sëñ Xaadim Njaay di ko baax. Mhm. di siyaare soxna Saarata. Mhm. wax dëgg yàlla moom ku baax la. yaayu Mouhamed. yaayu Mouhamed nga xam ne mooy mhm. nekkal géejawaay. di ko baax lool di di suñu xarit di suñu soppe. di siyaare soxna maam Jaara Mbóot. nekkal Masaar nekkal ñu fa. moom it ñu ngi koy nuyu bu a baax ko siyaara. di ko ñaanal jàmm ak xéwal. ak soxna Adam Njaay mi nga xam ne. moom ku baax la. moo ñu nekkal tëngeej di ko ñaanal bu baax a baax baax. di siyaare bu baax. soppee Wadduha yëpp. di siyaare bu baax. Cheikh Ahmed Tidiane Gadiaga. di suñu xarit moom itam. ñu koy nuyu bu baax di ko siyaara. di siyaare mbooleem as changé Wadduha bépp rek. ak fu mu mën nekk di ñu teewlu. ñu ngi leen képp kuy déglu émission bi. ak foo mën nekk ci biir réew mi. ak ci bitim réew. ñoo ngi leen nuyu bu baax di siyaara. kon sëñ Mara ngeen rafet na fi tabarakallah yal yàlla nangu tabarakeel Malick Sock. Mm-hmm. Eh, fi tabarakallah eh, Imaam. Mm-hmm. Eh, mm-hmm. bu nu toogee ak Imaam. toog moom si jamono ji nga xam ne. kuy topp yi te xam ne. Sénégal yi. li ñuy dégg si ñoom. dég-dég yi ni am si jamono. Mhm. wute na lool ak la nu woon sénégalais nuy laaj sabab bi. Mhm. ndax euh, leeru diine nekkatul si xol yi. Mhm. wala lan mooy sabab wala seytaane man doomu aadama yi ba nga xam ne léegi sénégalais. doo xëy mukk ba jant sotta dégg loo xam ne kawteef lay doon. xam naa. yi fi jotta am na ma ko xewon keraw rek bima nañ ni dégg nu naan am na dëkk sangam nang fay faat ñi nga xam sen xel dafa dem nu bal ma ci kaddu gi nu leen tuddé dof nu ne ñakoy def kat adina lu nu sey ut dem bam di dégg ne nu ngi sulli ña nga bi sun borom da leen nu nekk barsàq te ña koy def lan utun si lenn lu dul àddina nuy mm-hmm. dem ba naan nit bëgg teranga, mm-hmm. ak yàkkamti ak ut sàkk lu lewul dundee lu lewul mm-hmm. dem na ba muy rey mbaam àll di koy dugal si marché di koy jaay ay doomu aadama nu dema dem ba léegi tour deret eh, imam xaw a bëri lool mu mel ni doo semaine bu nekk du ñàkk nga dégg ñaar wala ñett ñoo xam ne bi ah. tuur nañ seen deret ah. fa tabarakallah nu dégg mel bés boo xam ne ah. nee naa foo ne Seydina Muhammad ñëpp ne sallallahu alayhi sopp na bi nga koy dégg fu bari bari e, nu lan nga mën a ñaaxe doomu aadama yi si lenn si jikkoy sallallahu alayhi wa sallam boo xol yi gën a mën a defaru yaa imaam jërëjëf sëñ El Hadji Cissé ñu ngi lay dellu rek di la gërëm ci yaatal gi nga def ndax li ñuy waxloo ku ko mën a wax nga waaye joxe cër day tax nit am cër mm-hmm. beneen bi ci des mm-hmm. mooy teralaat day tax nga tedd mm-hmm. mu mel ni kon ñu ngi lay sant ci loolu bu baax li nga wax lu am solo la El ñu ngi jëm ci guddi nekk ci weer woo xam ne senegal yi wala monde entier su leen neexee ci la adduna bi di defaru wallaahi wallaahi su neexee jullit ñi ci weer wi ci la àdduna di defaru mais suñu sàgganee ba rate occasion bi tamit dana jur yàq-yàq boo xam ne dabaatal ko dootul dootul yomb li tax ma wax ko mooy tudd nga ko léegi muy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nga xam ne yàlla dafa wax ne laqad kaana lakum fi rasulillahi uswatun xasana mm, mm, mm, mais ci ñan da ngay question mooy ci ñan wallaay wallaay liman kaana yarjullah wal yawmil axir wallaay ak am solo ak am solo kon dañ dafa am ñuñ setti mm-hmm, mm-hmm, mm-hmm, boobu sallallahu alayhi wa sallam nga xam ne li yàlla am lépp mën nga ne jox na ko ko moom yàlla jël ko jagleel ñu ko ne ko wama arsalnaaka ila rahmatan lil alamin wallahi wallahi wallahi waaw raxma boobu anam pourtant dotti na ko mais ndax moom la déedéet moom sotti na ko mais ñi koy dékkandu ñi ko war a jëriñoo yàlla waxoon na ko ci benn aaya ne ko duma mbugal jullit ñi mukk feek yaa ngi ci seen biir waaye duma leen mbugal mukk feek yaa ngi leen di jéggalu mais loolu itam garanti yooyu te wax naa ne alquran mhm. dafa am garanti yu ci yàlla def mhm. mooy inna nahnu nazalna zikra mhm. wa inna lahu la xaafizoon yàlla def ne man maa ko wàcc mais dama ko protéger dama ko sécuriser ba du yàqu kon li ngeen ci gis loolu la kenn kooju ko kenn yokk ko du lu ñuy kooj mbaa li ñuy yokk mais kon li xew mooy ñun jullit ñi lañ laaj suñu bopp ñun ñooy kan ñun ñoy kan ci kanam yàlla mais ñun ñoy kan ci kanam yonnati bi sallallahu alayhi wasallam parce que bu fekke royukaay kay lañuy wax kay bi gën ñoko am wallahi wallahi ci ci njubum ci deggom ci taram ci doxalinam ci dekkandom ci waxam ba yàlla ne ko lo wax mako wax wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha wa legi nak suñu teunké ku mel nonu ñu ne mom lañ am ba pare ñu baal ma ci baat bi ñu ne nag ñi gën a yées ci ñun la ne. kon lu xew. wallaahi wallaahi. ku ne da ngay laaj sa bopp lu xew. <laughs> jar na laaj. <laughs> lu xew. lu xew ñu ñu am alxuraan. Mm-hmm. am mm-hmm. yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. Mm-hmm. ginnaaw yonent bi sax. ñu am ay nit ñoo xam ne. li ma waxoon léegi. warasatul anbiya. wallaahi wallaahi mais lu xew. lu xew ñu gën a bëgg a yées. wallaahi wallaahi wallaahi. lu xew ñu ci ñun la borom xol yi bon yi ne. Mm-hmm, mm-hmm. ci ñun la ñi kiñaan ne. Mm-hmm. ci ñun la ñu jubadi ne. ci ñun la tooñkat yi ne. ci ñun la njaalookat yi ne. waa lu xew. kon El Hadj ñun jullit ñi. ñoo war a jël suñu baaraam teg ko ci suñu dënn. joxoñ suñu bopp. wallaahi wallaahi wallaahi. xam ne nag. li xew. ñoo ko teg suñu bopp. Mm-hmm. rawatina nag ñun ñi dëkkee ci réew mi wax nga léegi benn baat mm-hmm. soppee nabi mm-hmm. nangam nabi nangam nabi nabi ci lan sopp yonent bi mooy roy ko sopp yonent bi mooy di ko déglu di ko roy ci jikkoom ya ci njub ga ke njubam googu nga xam ne yàlla daf ko dëxëñ ci faatixatul kitaab bu yàlla di wax ihdina siraatal mustaqim mais yonent bi mooy siraatal mustaqim bu dee ñun ci tarixa bi ñu bokk muy salaatul faatee haadi ila siraatal mustaqim mais yonent bi la mu ngi jolli fu ne mais tey ngay gën a jaxle ci nit ñi tey ngay gën a jaaxle ci jullit ñi kon loolu sëriñ bi li ma bëgg a wax mooy ñun jullit ñi nañ seetaat suñu bopp kenn ku ne xeet xool fa nga tegoon sa tànk uh-huh. su dul foofa nga dellowaat ko fa nga ko war a teg uh-huh. Uh-huh. la suñu góor ga daan wax Serigne Cheikh. ku ne dugg ci ruq mën a kan. wallaahi wallaahi am na solo. <laughs> kenn ku ne. da nga dugg ci sa ruq. laaj sa bopp yow yaay kan. wallaahi xam nga yonent bi daf ñu jàngal benn xadis. xaasabu anfusakum. qabla an tuxaasabu. ak am solo. mais loolu. buñ ko deful itam ñun ci société bi ñuy nekk. ñu ngi audité ñoo xam ne dafa am lu tax ñu leen di audité mais bala ñu leen auditer audité dañu fekkoon ñu war a audité seen bopp ñun bala ñoo teer ci kanam yàlla subhaanahu wa taala war nañu seet suñu bopp lu ñuy yóbbu ci suñuy jëf ci suñuy jëflante ci suñuy wax mais sëriñ bi soo xoolee dëkk bi li ci xew da ngay laaj ndax nit ñi li ñuy def ñoo ko tey mu ñu mel ni ñu ñu xabtal ci ñaawteef wallaay wallaay wallaay su fekkoon sax ci njub la du la jaaxal mais dañ leen xabtal ci ñaawteef sama benn xarit dafa daan wax na muy Oustaz Assane Seck bi nekk Zik FM da wax naan sénégalais yi seen deret tàngul mais day tàng ñoo koy tàng koy ñoo koy tàngal kon di tàngal sa yaram amul solo. wallaahi wallaahi wallaahi. na nga bàyyi ni tabia bi la yàlla bindee rek. mooy yàlla bindul nit. pour muy yàq. yàlla bindul nit mm-hmm. pour muy tooñ mm-hmm. yonent bi salaa dafa yàlla daf ko wax ci xadisul si ne ko mm-hmm. man dama dama araamal tooñ ci sama bopp moo tax ma araamal ko ci seen diggante te boo seetee Serigne Cissé li ëpp li am boo ko delloo ci baat bi ci ñaar yi la toon la la dellu benn bi mooy baat bi ñoo tuddee tooñ ci wolof ak baat bi ñoo tuddee mer benn góor dafa ñëw ci yonent bi salaa ne ko digal ma yonent bi ne ko laa taxdab wallaahi bul mer wallaahi wallaahi mu baamtuwaat ko mu ne ko laa taxdab bul mer parce que yi sosu yëpp foofa la mu sosoo kon ñaar ñi bu ñu leen fajee bu ñu fajee ñiy tooñ ba ñu bàyyi tooñ faj ñiy mer ba ñu wér société bi baax yàlla na ko yàlla defal. amiin amiin amiin barakala barakala imaam yóbbal bi bu am na solo. yàlla na topp bu tàbbi si nopp samix na watax na comme noonu nga ko waxee rek si ne am nañuy royuwaay. Uh-huh. fa tabarakallah yal nañu yàlla gën a xiir si lu baax. Uh-huh. Eh, yàlla gën a fóot xol yi. Uh-huh. dañ koy waxee rek ne baraana luy am. xol bu amul leer la bu sarsiwul dara si leer. waaye fa tabarakallah nga xam ne dina eh, tudd yàlla. di koy fàttaliku te tàmbalee si motal waxtu yu juróom nga xam ne. feeg yaa ngi koy respecté yàlla dana lay tënkal seytaane ba du lay not mhm. eh, teg sayit fa laa di saxook laab toujours muy laabu yaram ak laabu xol mhm. ndax xol su dee laab yu si bëree bëree bëri seytaane du fa mën a placé wu ba mën fay def naka su noona mhm. eh, moom su fa lenn leer nekkee rek fa tabarakalaa seytaane da koy sore waaye lu tuuti la la sa seytaane yi am bu boroom amul ak Pastef day mel ni e, lu weex loo yor gàkkal sa tuuti lu ñuul <laughs> lu lu ñuul lay gën a yokku day mujj dem ba day muur lépp mooy tax dangay ngay mujj nit wax yas wi la day mujj àgg foo xam ne mhm. nan koy waxee rek daanaka jëmm jaa fa nekk waaye la ñuy wax nite mhm. la wax nit nekkatu fa mhm. te nit fu mu nekkul rek jomb du fa am. kerse du fa am. te ñaar yooyu jikk yu ama ama am solo la mooy kerse ak jomb. Eh, nee naa sunu demee ba bu nu xëyee ku si nekk di dàkk rajo. Mm-hmm. boo xam ne day waxi kawteef. Mm-hmm. <laughs> tey nga naan bii neexul. Mhm. moo xam nga naan tës tey neexul. Mhm. wala beneen xalaas wala moo xam. tey yooyu mu war na am ay weer. Mhm. du si am benn lan si dégg. léegi muy dem ba benn bés bu nekk. da si dégg yu bëree bëri bëri fa tabarakallah imaam su ji ko yàqoo ba macha allah ba soxna. di di di sàcc nit. pour pour di koy sàkku. loolu wax yasubillah te yooyu yëpp yaa ngi koy dégg ak yeneen ak yeneen yeneen yoo xam ne bii. wallaahi du lu nu donn te it fa tabarakallah eh, ni ko waxee maam du fu nu waroon a toll yit eh, mu war nuy gën a xeertal. Mhm. si kon mm, génération future. te mooy mhm. sunuy njaboot. Mhm. ba nga xam ne yàqu-yàqu yi xew yàlla dana leen si gën a dimbale. Mhm, mhm. soo demee si internet bi léegi fa tabarakallah la sa nekk si sullante mbóot. si xasante bi. si mhm. fa tabarakallah yoo xam ne bii lépp su jikko yi defaroon rek lu mën a ñàkk la. Eh, loolu imaam lan nga si yokk laaxee biir mbokk yi. di wax ne sunu demee ba si kanam danañ mën a wéttali contact ñun. moo xam lu nu bëgg imam laaxe birante si ak mbokk yi si 33 821 14 85 bismillah jërëjëf mhm. Cissé ñu ngi dellu rek di ñaax suñu bopp mhm. di ñaax ñi ñu bokkal yàlla mhm. di dellu suñu bopp ci alquran mu mel ni Cissé yàlla daf ñu wax benn aaya ci alquran waaye ñi ëpp ci nuñ mën nañ koo jàng mais alxuraan mhm. li ci gën a am solo mooy lettre bu yàlla bind la jox ko yonent bi sallallahu mhm, mhm, def ca yem ca def yëpp waaye li ko ci gën a yitteel mooy dafa am lu mu wax ni yonent bi mooy day leen def li ñoo tuddee tadabbur wallaahi wallaahi wallaahi di creuser alxuraan di ko gëstu di xam biir bi ngir ngeen mën ko dunde akam solo yàlla wax ci alquran na waman yattaqillah yaj'al lahu maxraja akam solo wa yarzuqu min xaysu laa yaxtasib wallaay ndeysaan am solo la waaye léegi seetal ñun fi ñu toll xam nga jàmbat yi nit ñi di jàmbat ci dëkk yi jafe-jafe yi nit ñi am coow li nit ñi am tawat yi nit ñi am xataa tawat yi mënta wér soxla yi mënta faju lu xew dañ fee ba yàlla wallaahi lu wér a wér lu wér lu wér wallaahi te ku fi bàyyi yàlla. Mm-hmm. yàlla la ma waxoon ci alxuraan maa ayshata dënkan. Mm-hmm, mm-hmm. nee na ma kërëjal sa dund. wallaahi wallaahi wallaahi. su ko defee loolu. mooy li ñu war a def nag mooy delluwaat ci bële. ñuy jàng. nañ delluwaat ci ittaqullah. ndax ittaqullah yuallimukumullah. wallaahi wallaahi wallaahi. kii jàng bëgg am xam-xam. li koy may xam-xam. mooy njàng ma ànd ak ragal yàlla. kii liggéey bëgg am. barke ci li muy liggéey la ko cay may ndam moy mu delu ci ragal yàlla wallaahi moo alquran wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wallahi wallahi wallahi parce que jafe-jafe solution bi ci alquran la nek solution bi ci yonent bi rek ben mbok ma sunna ma laaj dama bëgg da dama dafa am luma bëgg mané ko def ko 1001 mané mille un mu ma wallaahi yenu na wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarsuquhu min haythu la yahtasibu du dëgg wallahi wallahi ndaysan ay bu rëy ko defee nit ñi war nañu bàyyi xel ci loolu parce que yonent bi ñuy wax sallallahu alayhi wa sallam li tax yàlla jox ñu ko dafa war nañ ko xutwatuna fi kulli ma yaquluun wa ma yafaluun ci lépp nag war ñoo roy yonent wax ne dañuy roy yonent bi parce que dañ ko sopp déedéet mais suñ jëf li ñuy pratiquer li ñuy wax li ñuy jëflante fi ñuy dem doxin wi dafa war a nekk doxinu yonent bi wallaahi xam nga sëriñ Cheikh dafa wax benn wax daf ne kunu rijalullahi misla muhammadin sallallahu alayhi wa sallam maanaam yonent bi doxinam doxee leen ni muy doxee teg leen tànkam fa mu ko tegoon waaye nag moom yaatu ba moo leen koy gën a yaatule wallaahi wallaahi gudd ba mën na leen koo gën a guddule mais li am solo mooy teg leen ko ku ko fa teg topp nga ko te topp yonent bi nag. Mhm. mooy jaamu yàlla sëriñ bi. wallaahi moo tax. Mhm. yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mos nañ ko laaj. Mhm. mu ne mu ne sama xeet ñëpp. aljana lañ dugg. ba mu des ñi bañ. ñu ne ko déet sallallahu alayhi wa ñan mooy ñi bañ. mu ne ñi bañ daal mooy ñi nga xam ne nii. ñi ma topp daal mooy ñi nangu mais ñi bañ mooy ñi ma mooy. كل أمتي يدخل الجنة إلا من أبى قالوا يا رسول الله ومن يأبى قالوا من أتعني دعا الجنة ومن حساني فقط أبى <laughs> كن لولو foog ñu bàyyi ci xel roy yonent bi rek la du maa ko sopp ak du maa gudd mbubb du maa gudd sikkim ak du maa sant diw ak du ma maa bokk fii bokk loolu amul li am mooy roy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak ku la mën a jur boo royul yonent bi doo kenn wallaahi wallaahi ak noo mën a tudd ak loo mën a yor boo royul yonent bi doo كن والله حلو تغيون انت بي كل ند تخي الجنه ادنا كل ند تخي الاخره والله ومن يطع الله ورسوله ندخله جنات تجري من تحتها انهار ومن يتولوا نعذبه عذابا اليما والعياذ بالله لول نك دنج ورا بايخل لول نك تي وير <laughs> ان هذه الشهر <laughs> ولد فيه القير الانام لول فوك ني باي تي خيل وير وي نك موتاخ ما تي تامبالي بي ما واخ لا سي سي اوكازيون غي بو خامني تي لا ني ديفورو با فاو با ني ياكو تي بو فاو لغي نك ديس نا تي نون داخ دانيو بوغ ديفورو ولا دانيو بوغ ياك ني بوغ ديفورو نان جيل تنك سين بوب تي ريو نانتي بي roy yonent bi ci jikkoom yu baax ya wallaahi ak am solo xam nga wax nga sànq benn baat innama bu'istu li utammima makaarimul axlaaq mais fëgg sa dënn googu yonent bi rek ko sañ wallaahi wallaahi wallaahi wallaahi fëgg dënn googu moom Muhammad sallallahu alayhi wa sallam rek moo ko sañ man la yàlla yónni ma ñëw seet yi manqué woon ci ay jikko rafet rafet ma mottali ko pourtant amon na fi. bim mu jikko yu bax amon na fi. mais doyul. njub amon na fi mais doyul booba Lamine amagul. bi yonent bi ñewé la Lamine am. yàllaahi wallaahi wallahi wallaahi amiin. bi bi yonent bi ñëw. la hadi am. la haqq bil haqq am. yàllaahi wallaahi naati la xaq bil xaq. ginnaaw yonent bi la ñëw ginnaaw bi mu la am. bi amagul amagul. yàlla fayal ñu suñu kilifa yi. xam nga. sooy jàng salaatul faatiha mm-hmm, mm-hmm. war nga cee jàng lu ne <laughs> اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح <laughs> لما اغلق لو لن نون <laughs> كون امون امون امن لوي دوغ اوبي والله والله خاتمي لما سبق ناصر الحق بالحق كون امن يدسون والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله موتاخ يلا كان دومم والله والله والله امنا لو خن دف ت موتاخ ني واخ كون حق قدره باسكو لول دو سونو مبير ñu delloo ko yàlla moom mi am kàttan ca kàttanam nga mu def loolu mu defal ñu ko xaqa qadrihi wa miqdaari azim kooku yàlla moo koy defal xeet wi moo tax yàlla na yàlla fayal ñu mag ñii amin amin moo tax seen tënk ku ci tënku yàlla mën na la defal sutura waaye nag ku tinkeeku ca tink booba mën na am sa dund karaj benn mag dama waxtaan ak moom léegi ci yoor yoor fi ñu nekkoon bi nga may woonoon moom laa toogal mu ne ma sëriñ bi mën naa ah, mu ne ma mu mag ñi jeexee ak ñi mag ñi yar jeex lu fiy des. <laughs> wallaahi jar na laaj de mag ñi ak ñi mag ñi yar. Ah, bu mag ñi jeexee takk. wallaahi ak ñi mag ñi yar jeex. Mm-hmm. te sëriñ bi boo amee seetlu. Mm-hmm. xam ne mag ñaa ngay jeex. te ñi mag ñi yar tamit ñu ngay jeex. Mm-hmm. boo seetloo génération bii ñëw. génération bu toll nu leen neex. mais vide. ci xam-xam vide ci jikko vide ci discipline vide ci lépp loolu baaxul ci réew kon nit ñi nan delluwaat ca cosaan gi jël njaboot gi jox ko yonent bi جوخ كو يونت موي ديلو لن تي القران جوخ كو يونت موي ديلو لن تي دارا يا جوخ كو يونت موي يير لن يير الاسلام ريبير بوبو بو نكو بيرتي مو اندي كاتاستروف يي غي غيس رينا نيت تي نياار فوك خام غا لول نياونا رينا نيت تي كاسو كافي خام غا لول نياونا رينا نيت تي 8000 فران لول نياونا ديمب تي ندار ماغي سيتان تي جورنال بي كو خام دي توك با نيه كو ريك موي داوال دارا بلاغ مو غارا داو غاتو نو اوتو با اوتو يي تي كاو مي سيتال بوبو مصيبه لان موي خاب xottal nit ñi ci loolu. wallaahi wallaahi lu xew gis ko loolu duñ ko seet. ku toog ba mu neex la rek. nga rey sa bopp. te yonent bi tere loolu. alxuraan tere ko. yàlla ne képp ku faat nit te tey ko sa kër mooy safara. Mm-hmm. loolu alxuraan bu leer la. di koy fowe. ñun ñu di ko fowe. ci réew mu toll ni Sénégal nga xam ne li ci ëpp ay jullit lañ. Mhm. nit ñi ñemewuñoo àttee diine lu xew. wallaahi mhm. wallaahi imaam. lu xew lu xew. Mhm. réew mu toll ni senegal nga xam ne li fi nekk ci diine. nit ñi ñemewuñoo wax diine dëgg. lu xew. lan moo xew. ki nga gën a naw ci kilifa ci wàllu àdduna mbaa ci wàllu diine. moo naan la man. rey ñu rey la man nanguwuma ko fu mu ko teg. <laughs> xanaa moo ëpp yàlla yërmande ci nit ñi. <laughs> xaj na si doxaate lom <laughs> luy lom kuy lom. yàlla mooy lom di. wallaay wallaay kuy lom xam nga yu façon yooyu. buñ demee ba mu ba mu tas ci réew mi eh, sëriñ. Eh, jaam dafa warul. Ah? warul mën a ëpp yërmande borom bi. mënul nekk. Mm-hmm. léegi nag yàlla na defee leen nii. Mm-hmm. nga ne ko yàlla li nga wax de. Mm-hmm. baax na waaye duñ ko def dafa am neneen nu ñu gënal mu ne kon ma balee nag àdduna mu bañoog àdduna nag wa man lam yaxkum bi ma anzalallah fa ulaayika humul faasiquun fa ulaayika nangam wallahi wallahi ñett yëpp ba ca ñeent yëpp yooyu yëpp bu alquran wax ko ñun ñu weddi ko te ñun waa réew mii ñoo weddi loolu te ñi ko weddi amu ci benn kenn kuy ab tubaab ay jullit lañ ay Mouhamed ay Moustapha ay Alaaji ay Ousmane ñoo ko weddi ñoo taxaw ne loolu warta am fu ñu jëm ba pare ñu ne dañoo bëgg réew mu dal réew

mën a wettali contact mbokk yi lu si mbokk bu si bëgg a siyaarante si gàmm gi wala am lu mu bëgg a laaj imaam wala am lu mu bëgg a saafonteeg mbokk yi mu danañ mën a jaar si 33 821 14. 85 xam naa imaam fa tabarakallah eh, bëgg nañ nga dikkal nu lenn tamit si wëllëre mhm. kollëre mhm. muy lu am solo doon mhm. eh, luy commencé di tumuranke li ni wax kersa tamit fa tabarakallah doon lu am solo te di commencé di tumuranke kon alxaji malik bu fekkee mën nga noo jox aja eh, waaw bismillah bismillah allo asalaamaaleykum. salaam wa rahmatulah. Eh, Adja Aram bu Tëngéej la imaam imaam ñoom. njëkkay Ndiaye Ndiaye Ndiaye. ñu ngi lay ziar baax Ndiaye. macha allah Ndiaye Ndiaye. yàlla yàlla nangu tabarkel ma am nga rajo bi. waaw non non eh, la dëgg la allah. dëgg la dëgg la Ndiaye. ba léegi émission na solo allah. jërëjëf Ndiaye Ndiaye. lu jëm ci yonent bi sallallahu alayhi wa Ndiaye. ñaan yàlla suñu borom yàlla nañ ko eh, tamit laa àndal. ah Malick. ah eh, eh, Malick Malick maa si. ñu ngi si burd bi. wallaay ndeysaan wallaay yàlla nangu lépp may ñaanal auditeurs ak auditrices yëpp. jërëjëf Ndiaye yàlla defal leen jàmm defal leen xéewal. amiin amiin defal leen teraanga. amiin amiin Ndiaye. amiin yow aussi ñu ngi lay ñaanal bu baax a baax. amiin ñaan ko yàlla boole. jërëjëf wéral cër yi yàlla yàlla wéral cër yi. amiin amiin Ndiaye. incha allah yàlla yokk xam-xam bi. amiin amiin amiin amiin amiin Ndiaye. jaaba. amiin amiin. bu ñu fay sëriñ bi dañ koy bàyyi yàlla. <laughs> jërëjëf Ndiaye. jàllale pour jaam yàlla yu defaru. Hmm. sëñ Ousmane Niang ñoom tam message yi ngeen di jàllale pour xale yi defaru da leen yàlla defal dégg ak topp amiin amiin da doon wax léegi gën lu toll ni tracteur xaw ma camion dugg ci suufam wallaay wallaay da emela ay fanam wallaay wallaay wallaay yàlla ñu si yàlla suñu borom gën a musal amiin amiin amiin xam ne àdduna bàllee xar ma xar ñoo ànd képp ku am na xar rek nga wàcc lu mun Mm-hmm. nga xam ne du jeex amul yàlla mooy tege ay natt te bu ko soobee teggi da koy teggi wallaay wallaay mm-hmm. njaay mm-hmm. njaay li leen di wax am na solo loolu wax dëgg yàlla njaay jërëjëf njaay defaraat société bi bu mu gën a defar amiin amiin amiin kontaan naa lool imaam. kontaan naa jërëjëf jërëjëf jërëjëf tubaarkalla am naa si mbégte lool. macha allah jërëjëf di la ñaanal suñu mara rek yàlla yokk wéram dëgëral taxawaayam. amiin amiin amiin. Eh, boobu ñu fàtte si ñaan mais ñun aussi duñ leen fàtte si ñaan ñu ngi leen di ñaanal saa su nekk. jërëjëf yàlla boole nangu ñaan ñëpp barke. amiin amiin amiin waa association Wadduha yëpp. wax naa wax naa imaam mu ñaanal leen bu baax association bi. <laughs> daal rencontre. Mhm. maanaam assemblée générale lañ bëgg a def daal. yal na ko euh, yàlla mottali te barkeel. waaw bi si kàntanu borom bu tedd bi subhaanahu wa taala. yal na yàlla mottali te barkeel. Euh, dal daal te programme yëpp xaw a paase. wallaay wallaay wallaay. am naa bu gën a yaatu. wallaay am nañ ci yéen imaam ñu ngi lay ñaan nga defal ñu si ñaan bu baax a baax. incha allah incha allah. Eh, eh. waaw si mhm. association bi suñu bëggee yegg rek yàlla ñu ko si. amiin amiin Ndiaye. Ah, amiin imaam maa am nga si carte yi. Eh, waaw xam naa imaam maa ko yoral ba saw. waaw dina ma jox. incha allah xam nga gisee. incha allah incha allah incha yàlla ak yërmandeem. yan yàlla barkeel yàlla nangu ñaan yëpp. nu tewee ko at yu bëri. yàlla yàlla boole yool. jërëjëf Ndiaye jërëjëf jërëjëf jërëjëf barakallah barakallah aja Aram Ndiaye bu Tëngéej mooy présidente association mhm. Wadduha tabarakallah ngi ñaan yàlla yokkal leen barke incha allah amiin ñu jërëñaan leen imam ñu eh, eh. ngi koy sant bu baax waaleykum salaam wa rahmatullah sëriñ Mara. Eh, Alxaaji Modou. neen def Mouhamadou Lamine Muntaxa. ah Mouhamadou Lamine Muntaxa <laughs> neen def maa ngi lay siyaare baax. maa ngi lay siyaare bu baax Cissé. jërëjëf yal na yàlla nangu tabarkel. Eh, di la ñaanal suñu borom guddal sa fan. amiin amiin ba. Eh, doole lay defal tawfiq ak taysiir. amiin amiin amiin. borom defal la najaax ak la sax di la rey ni ci barke yonent bi. sallallahu alayhi wa sallam. ñooñu lañ koy ñaanalee yaa imaam. ñoo koy nuyu bu baax. ci waxtaan wi. waaye tamit sëñ Malick itam ñoo koy ziar lu bare bare bare mm-hmm. wallaay wax <laughs> tamit di nuyu sunu technicien boobu sëriñ Malick Sidibé. wallaay mi ngi lay fay sama kàddu. di lool moom it di sonn lool ci euh, émission Wadduha. wallaay wallaay wallaay euh, wallaay. Adja Aram ñoo ngi koy nuyu moom di ko jaajëfal bu baax. wallaay wallaay kër bu mu ne. wallaay dëgg la dëgg la baax. ñaanal yàlla sunu borom guddal fanam. amiin amiin Mouhamed. mboolem njabootu Wadduha bi yëpp ñoo ngi leen di ziar bu baax. jërëjëf mboolem association bi. amiin amiin baax. yaa imaam ñu ngi kontaan lool. Ah, ah, ah, dal boobu nga xam ne El Hadj Modou si sëriñ Mara itam dalal na la ko. Mm-hmm. Mm-hmm. jërëjëf ci mbégte lool rawatina ci weer wi. Mm-hmm. te ni waajal guddig yonent bi. sallallahu alayhi wa sallam. mu nekk loo xam ne itam lu am eh, eh, ni ma ko waxee rek dëkk bi itam mu nekk loo xamante ni itam lii dafa nekk ab tëdd boo xam ne ab jàngat la. Euh, njàngat li mooy lépp li nga xamante ni ci weer bi war na ñaan nañ ko. Mhm. Euh, réew mi itam di ko faral di ñaan itam am nañ ci yaakaar ci yaakaar mhm. bu wér ci suñu borom. Mhm. te euh, Sénégal dañu bëgg yeneen ci bi. wallaahi wallaahi. fi fi nga koy xamee ni ma koy waxee rek boo duggee ci woto tey nga dugg ci kaar tataay sax. boo duggee kenn ngoo xamante mu ngi yalwaan bu tudd yonent bi sawaay da ngay gis. kanam yi xool yi ni ñuy seetee. ni ñuy seetee xéwal di ko joxe. réew Sénégal ñu bëgg yonent bi wallahi wallahi wallahi da ngay xool visite de proximité bi nga xam ni rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam def na ko ci jàngale ci makkatal mukaram trois ans yi nga xam ni su ko neexoon danaan ni xëccante xëccante gobar mhm. euh, doo dégg euh, tuurante deret am waaye loolu yëpp amu ko mhm. Mhm. waaye yàlla suñu borom tabaaraka wa taala da koy jàngal moo tax damay wax ni lii di ay campagne du xaañante du sànnante gobar rawatte ne li nga xam ne ci mi jamono ji wallaay dëgg la Mohamed waaye visite boobu yàlla suñu borom defal na ko jàmm muy muñ di gis lu ko neex lu ko neexul ñetti ak yi nga xam xamante ba suñu borom tabaaraka wa taala defal ko ndam bu ko neexoon nit suñu borom bu ko neexoon bu duggee rek xool yëpp ànd ak moom leçon la. ñoom war nañu mën a delluwaat xel bu baax a baax a baax. boo daawoon dégg tey ñu ne ñaaw tiif xew na ci yeneen réew day jaaxal Sénégal sax ay yenn mbir yi ni ko doomu aadama yi mën a defee. kon nag yenn yi du tàmbalee di ruus di wàcc nii. foofu daal ñu mën a dellu si waat dégg la ci njàngale mag ñi. wallaahi ndeysaan Mouhamed. voilà sunu valeur. dellu si waat rey yaram yaram njaboot. wallaahi am na solo. dëgg la surtout surtout may si may daanelee rek moo di. Euh, ni ñu ko waxee rek yonent bi sallallahu alayhi wa sallam li mu waxoon. Mhm. nee na jullit du ma euh, ngëmam du mat faw lu mu bëggal bopp. wallaay lu am solo lu am solo lu am solo te gis naa tey sunu borom tabaraka wa taala defal na ko ndam. Mhm, mhm. xëy na jox na ko euh, mën na ko ne mën na ko jox na ko woto. jox na ko stage yéene ko lool. xam ne loolu sunu borom moo ko jox. yéene ko ku ma yokk dara gi gu mu ko jox suñu borom mokk ko jagleel mm-hmm. nañ ko nangu mm-hmm. jërëjëf ndax boo loolee tam boo ko gisee mm-hmm. li may bëgg a daaneele foofu rek mooy bu fekkee ni ki ñaa ngi dox taasu ni yaruñu suñu suñu bopp na ñu dogalu suñu borom suñu borom nag dañ koy gëm wóolu ko wallaay dëgg la ngëm nañ ko waaye kóolite gi moo des wallaahi wallaahi am na sangam wala gis nañ li nga xamanteni ci télévision yi xool nañ ko léegi ah diw gis nañ ko ni mu nekkee wax fa dëgg yàlla ay borom bien la. c'est ay image la rek ay image yoo xam ne ñuy teg la. loolu day nekk ci ci askan wi. askan wi di ko bàyyi jàpp ni rek mooy dëgg. dëgg la la loolu nañ ko bàyyi waat xel bu baax a baax. wallaahi wallaahi wallaahi. laa yu'minu ahadukum ay yuhibba li axiihi maa. wallaahi wallaahi ndeysaan lu wér. daal nañ ko delloowaat bu baax a baax loolu lay daanelee. wallaahi wallaahi rafet na ñi ci ñi ci ñi xaar bari na. rafet na rafet na macha allah محمد ما شاء الله ما شاء الله محمد بارك الله فيك بارك الله بارك الله محمد الله من منتخب ومم في فرال دي ويتل كنت آه، يلا ساي إيه، تبارك الله mu xam ne ku am itte waaw moom eh, eh. Seydou kan la. waaw Maymuna la. <laughs> waaw. soxna Maymuna. yow moom ku la wax ne maa ngi fi mu ngi may kar fi. <laughs> Maymuna maa ngi bu baax a baax. maa ngi ci jàmm oustaz bi kontaan nañ. wallaay ndeysaan naka waa Géejawaay. dinañ ñu nga wax bu yal nañu yàlla def. ñu mm-hmm, jikkoo ay jikkoo. amiin amiin yow ak oustaz bi ak imam Mara. Moustapha Cissé ak jërëjëf Samet El Hadji Malick jërëjëf jërëjëf yàlla bu mu doon seen benn amiin soxna su baax ngoogu soxna su baax jàngalekat la ku baax a baax macha allah yal na yàlla yokk yal na yàlla defal la sutura kontaan nañ bu baax a baax ndeysaan ñu ngi kontaan baax may mu la yal na yàlla yokk ñu ngi nuyu waa daara ji mii moo sababoon sama dem ak Bamako. ndeysaan ndeysaan ci lépp ci moom la jaar ndeysaan macha allah tabarakallah ñu taxawu ma fa lool incha allah macha allah tabarakallah <laughs> yal na yàlla yokk ko barke jërëjëf amiin waay jërëjëf jërëjëf tabarakallah am na soxna soo xam ne taale bi mën na taale bi Mouhamed Niang rek lu muy wax sama jàpp trop est-ce que du moom la taale bi Mouhamed dama la gëj a dégg dëgg la gëj nañ dégg eh, alhamdulilah sax mais ñu fekkoon nga jéem na. waaw dëgg la dëgg la dëgg la yal na yàlla yokk lu barke. yal na yàlla yokk barke. incha allah incha allah. a dem ngir yeneen yi. la. <laughs> saa yu ma wax loolu man la taalibe ma imam Mohamed. <laughs> <laughs> ndeysaan yal na yàlla koy nuyu bu ديسان ديسان ما يمونك وباخ ما جان على القران ما شاء الله جري جف ما يمونك جري جف تبارك الله جري جف جري جف اها بسم الله يون 833 لافي 121 1485 امام اها بو واو مو ملي دافا ام كوني تي لين بي نيو جيل كو اها مغوك كون نينا كين نيكو تي لين ياغي دون واخ ليغي تي كولري manam li ñuy wax fecc kolere hmm hmm euh may Mara ndax nit ñaa ngi fas kóllëre <laughs> xam nga li ñuy fecc luñ façon la. wallaay wallaay. <laughs> ok ñu jël ma ko. bisimilah kii si yoon bi. asalaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatullah. man la Soxna Seynabou. Eh, Soxna Seynabou Ndiaye. Eh, Cissé Cissé. Ndiaye Ndiaye. alhamdulilah Ndiaye. maa ngi leen di nuyu di leen ziar. jërëjëf jërëjëf Ndiaye. jërëjëf ñaanal ci weer wu teru bi. jërëjëf dama ne woon naa dugg rek. wallaay rafet na nu ngi leen si ndokkeel lu bëri. maa ngi déglu nu ngi leen di ndokkeel lu bari di la ñaanal. amiin amiin yàlla yokk barke xéwal. defal ko njaboot yi tamit di am mbégte lool di leen masawu coono it. Eh, coono bànneex coono eh, bànneex. jërëjëf Ndiaye wallaay wallaay wallaay jërëjëf jërëjëf soxna Seynabou. incha allah jërëjëf jërëjëf maa ngi nuyu njaboot gi yëpp. na leen amiin amiin amiin amiin amiin amiin jërëjëf jërëjëf eh, soxna Seynabou Ndiaye ndeysaan bokkoon na si ñi ñëwoon si sama ngan gi ah. amoon Jurbel ndeysaan ndeysaan eh, macha allah madame Cissé ndeysaan tubaarakallah Adja Aram eh, Alxaaji Modou soxna Jaaram Mbooj ñoom ñëpp tubaarakallah Abdoulahi Ndour ndeysaan eh, Habib Mbaye premier auditeur <laughs> eh, fa tabarakalaa am mbégte lool si ñoom ak si groupe bi tamit fa tabarakalaa di ñaan yàlla yokkal leen xéwal mhm. yàlla yokkal leen barke mhm. defal ko seeni njaboot tamit 33 821 14 85 imam waa nga continuer mhm. waaw yaa ngi doon wax léegi ci baat bi ñoo tuddee kóllëre ci wolof maa ngi lay laaj ndax nit ñaa ngi koy fas xam nga am na loo xam ne ku ko fas doo ko fecc wallaahi wallaahi wallaahi xam nga bokk na ci yàlla yi muy laaj ëllëg yowmal xiyaam mooy baat boobu ñuy wax kóllëre ak am solo parce que daf ne inna al ahda kaana masulan wallaahi wallaahi wallaahi Seydi Hadji Malick radiyallahu anhu nee na yàlla du laaj dara lu dul kóllëre suñu digganteeg yàlla sax kóllëre la. wallaahi wallaahi dafa am pas-pas bu dox suñu digganteeg moom. Mm-hmm. moo tax su buum ko mm-hmm. dogee. Mm-hmm. moo gis nga alaaji bari na ku naan la ku naan dafa fecc kóllëre. fasu ko woon sax. <laughs> wallaahi wallaahi. parce que kóllëre nit ki ko fas ak yàlla ba buum nga dëgër. buum googu dootul dog buum googu sàmm buum yëpp. wallaay wallaay. mais su buum gu njëkk gi doge. ki dog buum gi jog ki ko jokkoo yàlla. ki ko dog. Uh-huh. buum gu mu waxati ne jokk na ko dalay nax uh-huh. Uh-huh. xam nga loolu foo koy delloo mooy la ma la waxoon sànq ci ragal yàlla ak nit ki li war sa digganteek yàlla su jubul sincérité dugg ci war ma amu ca njub amu ca cell amu ca koo waxati na dinaa jubaleeg yow da nga koy nax wallaahi wallaahi imaam war yàlla war ñëpp kon ñu jël mbokk moom salaamaaleykum wallaahi waaleykum salaam wa rahmatullah bismillah waa kañ yaram. waaw Mansour Cissé bu Mboro. ah sama doom gëj naa dégg Cissé. maa ngi lay ziar bu dégg. nu ngi sant bu baax mbokki Mboro wala. Eh, Pire yaa ngi Pire de. waaw maa eh, yàlla yokk barkeel. maa ngi lay ziar ak Malick Sock. Mm-hmm. di ñaan yàlla weer wi ñu toll luñ ci ñaan rek yàlla eh, bari jërëjëf Cissé Cissé Cissé comme que li ñu miin rek mooy dafa am borom mm-hmm. ah, borom nag géej la goo xam ne moom ku ne da ngay ñëw tànk rek wallaay ndeysaan wallaay wallaay wallaay boo gën di xuus rek mm-hmm. yeneen géej ji gën di feeñ wallaay ndeysaan wallaay Cissé boo bëggee gàttañ lu nag mm-hmm. li ci Maodo wax rek min ko li wax seen xam yi lu baax lu ne jàppal ni mooy la ca gën a baax moom. moom yonent bi. waaw bi muy bi muy feeñ nag. miñ nan ne maanaam yàlla bind na ba pare waaye lépp lëndam la nekk. bi mu feeñee nag ki lañ mën a gis ñun ñi ba toog di wax. law lam yàlla fi fadaayil kaw ni talaatuhu laa tabqa al bariyatu fi zalmaa'i yàlla. saa mi ñu ngi lay fekk ci li nga wax sànq. maanaam dañuy wax ni ba wax xewee. yàlla njëkk a àdd. waaye yàlla bu àndoon ak borom dégg yu rafet yi lay waxal. lay waxal wallaahi wallaahi wallaahi wallaahi. na sa dégg ñàkk teggin. Mm-hmm. boo nettalee rek mu ñaaw. boo lay boo nettalee mu ñaaw. Mm-hmm. Mm-hmm. yéen yonente bi mi ngi fi léegi jógee fi. <laughs> ba tey jógee fi. waaye jikko jikko yi defaruwul. defaruwul. wallaahi wallaahi dëgg. lu ko waral moom dafa waxoon ni. maanaam nit ñu ne. feeg ñi ngi feccante kóllëre. yalla di wone ay non ci seen bir allahu akbar. ni waral ay terroriste yi ñu mhm. ci muy ko la. wallahi wallaay. mu ne ab dëkk bis buñu démé ba lañuy atté yalla taxul. Mhm. mu ni fa jàppal ni li ñuy tuddee ñak dana fa siw mhm. wallaay wallaay kon moo tax dëkk bi amna xaal lool. waye atté wuñ ci atté yalla motax tax. ay ma sha allah señ man. mu ne nag dëkk bu fa ñaawte bu bare rek. jappal ni dé yamuna allahu akbar. moo tax nga joxe misaal ci kooku ndawal oto ba mu neex hmm, ko. mu wàcc te kenn xamul lu ko wàcc. kenn xamul mu daw gàttandu ko. mu ni bés bu ñu demee ba ñuy ko ci yoon teguñu ko ci yoon. Hmm. nañ mi ngi gàtt. wallaahi wallaahi. Hmm. moo tax ngay gis waxambaane. am dee ni mu yombe nii bu njëkk dee yomb loolu. wallaahi wallaahi. muy dëkk nag bés bu ñu demee ba asaka kenn nattatu ko. kenn nattatu ko. kaw jàppal ne moom mi ngi fay ñàkk. macha allah. Mhm. mooy waral bu tawit ñàkkul itam mhm. Mhm. comme nam demee woon ci jamono na yonent yàlla no tawit taw boo xam ne day yokk nit ñi coono ak am mu ngi taw waaye dara baaxagul kon <laughs> bu ko defee dellu xel ci li Serigne Cheikh waxoon ni <laughs> ñu sangati réew mi wallaay wallaay wallaay la ñu koy sangat ak dara wallaay macha allah macha allah xam naa ñu déggal ma nag liñ bi xat na ah, sëñ Mansour bég nañ lool de ñu allah bég nañ lool macha allah amiin yaay yal na yàlla def la mag. amiin amiin yàlla sàmm la barke la macha allah. Mm-hmm. baax yàlla yàlla motal yëpp. jërëjëf rafet na. rafet na rafet na ñi ñaan ñi maanaam bu ñëpp ku mën di yëngu it ñi bokk ci Wadduha bu ñu yëngu. ndeysaan. na ci daw ndànk. incha allah. ci barke yonent bi yàlla na yàlla jàmmal ñëpp. amiin amiin amiin dem ku ne yiw wala fa yóbbu yàlla jox la. amiin amiin sëñ Mansour barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. baax na jërëjëf. baarakallah macha allah Mansour tabaarakallah moom de Mansour rek nga mën a. wallaahi wallaahi ndeysaan yàlla na yàlla def ko. amiin incha allah yàlla sàmm ko macha allah moom de. jóge woon na ba Mboro indil ma taalif bu am solo bu am am solo li ma la waxoon eh, léegi rek eh, eh, euh, ku bokk ci ñi mag ñi yar rek baax mm-hmm. daal di baax dëgg la dëgg la boo déggooy <laughs> ah, kàddoom ah, macha allah ah, moom de man nga njort ne addiya àgg na fenn fa waaye addiya limagul wallaay allah am solo macha allah xam nga allah bu euh, génération ñëpp bu defaroo woon ni moom mm-hmm, mm-hmm. lu bëri looy dégg mën nay wàññi ko waaye yenn yari nii comme noonu nga ko waxe woon Eh, mooy njeexitalu mag ñi rek. Mm-hmm, mm-hmm. moo fi des njeexitalu mag ñi rek. wallaahi <laughs> wallaahi ñi boobu yëpp. Mm-hmm. ñàkk nañu. te dootuñu am. Mm-hmm. loolu foog ñu ñemee wax loolu mm-hmm. ñi perdre repère mag ñi mm-hmm. ñàkk nañ parce que xaqaayiq yëpp yonent bi mag ñi la ko dénk wallaahi wallaahi ñooy doxal di roogalaat ci seen i njaboot di roogalaat ci seen i njaboot ila axiri su ko defee soo ko fi bàyyee nag defee ne am na leneen mbaa keneen nax nga sa bopp te kenn du ñoom <laughs> kenn du ñoom ne ko kenn du <laughs> yonent bi li mu amoon yëpp jox na leen ñu jara warmaa lan ñu jara <laughs> jege lan tabarakallah ñuy jar di taataan seen kàddu di sàkku seen barke dinaa koy wax lu bëree bëri bëri si ne mm-hmm. xale yi nan koy nan di sàkku barke mm-hmm. day tàmbale nag si waajur mm-hmm. sa bara ba ngay yëngatoo boo tollee si jàng métier boo demee ba yor responsabilité yi noonu nit ku ñëw na gàttandu ba am solo waxin ba ànd ak teggin ndax sunu borom macha allah eh, nitam fu li ñu wax nitu yàlla ak nit ak yàlla. Mm-hmm. leneen la walaay bokkul walaay <laughs> mooy tax war ma nan koy yokk bu baax fi tabarakalaay teggin. Ah. Eh, ñu roy bu baax si sunu doom jooju. macha allah léegi di Mansour Cissé. bu Mbora yàlla yokk ko barke. Ah, eh, incha allah Malick boo amee loo siy ba balay imaam ñëwaat. kon su ko defee rek mm-hmm. El Hadj li doon tënk léegi. Mm-hmm. mooy li mu yaa ngi ma doon wax ci wàllu kóllëre. maa ngi lay wax ne la kóllëre dafa bokk ci. alxuraan dafa wax na bokk ci. Mhm. yi ñuy laaj ëllëg. Mhm, boo gisee laaj boobu macha allah dafa xaw a tumuranke léegi. Mhm. ndax dinañ di wax ne. lépp boo xam ne maa ngi koy dégg c'est inspecteur Joxaane. ndeysaan mu ne lu nit jëmbat. keru sa ba mu des lu nit jëmbat keru sa ba mu des nit. ba des nit <laughs> day tegtal si ne macha allah loo yor rek. di koy toppatoo man nga sa jariñu mm-hmm. waaye nee na nit moom ngay defar ba mu mel ne ni. Mm-hmm. si kàttanu yàlla. mu mm-hmm. eh, doxee beneen doxin. bëri na nag bëri na bëri na si noo ko mën a déggee. Uh-huh. waaye li ci gën a am solo rek. mooy élage. képp wax naa ko ci tàmbali bi. képp koy jëf maa ngay jëflante. fexeel ba la ngay jëf. yéene ba sell. ak am solo. fexe ba la ngay jëflante. yéene ba sell. parce que su fekkee yéene ba sellul. perte la lay jural. xam nga lépp looy def ngir man yéene. ngir man kese. <laughs> man man dafa am nit laa tudd nit. am ay benke ñenke ay may manqué manqué. am ay yu may xam ak yu may ñàkk. Mhm. am ak njubadi am yu bari. Mhm. damay xëy wan la ko. Mhm. su fekkee yàlla taxul woon da nga koy perte. moo tax yonent bi teel ñoo gindi. ne innama al bi niyaat. wallaahi solo. wa innama li kulli imrin ma yàlla du fay acte bi intention bi lay fay. moo tax nit ñi. nañuy beesal seeni yéene. ci jëf xataa julli sax bu yéene bi duggul yàlla na jëluma njàpp bu ñëw yéene bi duggul ñu ne yàlla na jëluma kon li muy teg li mooy base bi baseu jëf ji na doon yéene kam solo il ñu bàyyi ci suñu xel soo jaamoon yàlla téeméeri junniy at tal yéene woo yàlla na jëluma yonent bi ne na jëf jooy defati <laughs> yéene bi na sell wallaahi su yéene ba sell yàlla daf koy sponsorisé te doo ko yëg moo tax muy xëy di rafet di màgg xam nga tey jii léegi am na ku la wooye mbooro soxna ñoom aram jaay ñoom soxna Zeynab ku nekk nga lay ñaanal xam nga lu ko waral yéene bu sell ba nga déparé wallaay wallaay dama xam ci dara man ci at yu yàgg wallaay lu wér lu wér lu wér ci at yu yàgg lu wér lu wér imam waaw yéene bu sell booba moo waral tey ba tey nit ñi di la gën a sopp nit ñi di la gën a bëgg di la gën a am yéene yuñ la mënta defal moo tax yéene ci la yëf yi nekk nekk kon yal na yàlla defal ñu yéene yu sell defal ñu yéene yu bees yéene yu yiw ba lépp lu ñu def yàlla rek tax mm-hmm. soo defee ngir yàlla mm-hmm. nit def ñàkk def ngir leneen. yàlla fay la. yàlla fay la moo tax foog ñu bàyyi xel ci jëf ji. kon wax naa ne. fas-fas yi nit ñiy wax. naan dañ koo fecc fasuñ ko woon. fasuñ ko woon. parce que ki fecc lim fas ak yàlla. bu ñëwee ne dafa fas ak siisa day nax siisa. fasu ko fasul dara. waaw parce que pas-pasu sa diggante ak yàlla. mooy suy jëflante yaag siise. mbaa yaag sëñ soog. la koy lal yàlla lay doon. waaye du doon calcul du doon lu ñu tuddee deal. te mm-hmm. <laughs> te loolu nit ñi ci ñaar yooyu. la ñuy loolu ndax ma ngi xamoon na ko deal. xamuñu ko <laughs> mel ni mel dafa am ku nekk ci léegi. Eh, alhamdulillah imam. ma ne ko kon kon mm-hmm. loolu dañ ci war a bàyyi xel. Mm-hmm. mooy nit ki li muy jëf. ak nit ki. na fexe ba kenn doon témoin mooy sunu borom. wallaahi loolooy tax doxalin ba rafet. mooy tax lu ngeen gëj a gëj a gisee bu ngeen gisee dara du xew. kenn du sëgg. parce que kenn fecciwul kóllëre. kon ñu jël mbokk moom salaamaaleykum bisimilah. salaamaaleykum waaleykum salaam wa rahmatulah. waa kañ kan la. Babacar Niakh. ah sëñ Babacar Niakh. na ngeen def. nu ngi sant bu baax sëñ Babacar. maa ngi jégalu bu wér a wér. ah maa ngi lay jégal bu baax sëñ Babacar ana ana Baye mbaa ma ngi si jàmm.

Eh, xam na na xel yi yëpp mu xel yaa ngi gise xel yaa ngi jokkoo tamit. ma ne ko xam na. maa ngi ma ne ko billaay du dara nag ñàkk am émission bi rek la te man. wallaay dëgg la dëgg la dëgg la dëgg la ñaax dëgg la. wallaay wallaay wallaay wallaay wallaay. wallaay dëgg la dëgg la. maa ngi yëgalu mbokku auditeurs yi ak auditrices yi yëpp nag. wallaay wallaay ndeysaan wallaay. wallaay maa ngi leen di yëgalu bu baax a baax góor ak jigéen. wallaay wallaay wallaay. ma lim rek jum waaye sama xel a ngi ci yéen de. xam nañ ko bu baax ñaax. yàlla yàlla xam na ko billaay yal na leen yàlla fay yiw amiin incha allah amiin amiin yàlla nañ yaay Wadduha mhm. yaay Wadduha mhm. baalu ak <laughs> bu baax a baax di leen nuyu jërëjëf sëñ Babacar leen gërëm di leen sant na jërëjëf jërëjëf yàlla nañ yàlla amiin ñaax دقل من مصيبة أقبلا آمين آمين سيد بابكر آمين آمين آمين آمين بلاي باي مارانك من كرم ما خمغا ونياك بيجو لفرت من مم بغين مكو جاك إيه رفنا رفنا واه واه واه واه خمغا بغين نصير لنوم إيه والله مالي يانا لن يلا حمنا كون جناكو منا <laughs> والله والله واه موتا حمنا نكس نوو تيرك مانجي جيغلو كتو كوي تيغلو وادوها لفرفنا سيد بابكر واه واه إن شاء الله لفرفنا nuyu sama mbokk boobu nag Cheikh jërëjëf waay yàlla barkel la. incha allah yàlla barkel la. amiin yaa rabbi. Eh, allah imaam ku jërë la. ku fidèle la macha allah. Eh, la gën a neex sa moom. mooy yëg ak toppatoo goo xam ne moo ngi koy def way juróom. Eh, fa tabaraka la nee naa ko loolu lu am am solo la. macha allah yàlla ko yàlla may barke loolu. tey dana ko amee si kattanu borom. incha allah nu ngi nii soxna Ulay Ñing. Mm-hmm. Eh, nu ngi koy nuyu bu baax bu si baxutaan imaam waa nu ngi woon si amaana. mu ngoog ñu ngi woon ci. Mm-hmm. baat boobu ñuy wax. baatu kóllëre boo gisee léegi liy fecciku oustaz dafa mm. imaam dafa bëri moo tax mm. nga ne ndax fasu woon na ndax fasu woon na xoolal léegi li ngay dégg si divorce mm. si yéen yi nga xam rek da ngay dégg <laughs> surnoo yi nu ne nangami weer nangami junniy sëy si yu noo xam fecciku na eh, foto ba tabarak la sëy ña nga li nga doon gis si ànd boo xam ne ñëpp danoo gëmoon ne ànd bu dëggu la mm-hmm. ngay mujj dégg fu waay toog safaan lay wax sa keneen. li nga doon gis fa tabaarakala si li ngay gis si barabu liggéeyukaay yi. nga xam ne léegi li ngay wax eh, ñàkk eh, tricé yeeg. Mhm. Eh, ñàkk dëggu gi ñàkk dëggu gi. def loo gëmul. Mhm. ak puusal ma toog yeeg yooyu yëpp. fa tabaarakala. xam nga xam nga dafa am ñun ñu tuddee ñun ñu tuddee imaam yi. Mhm. léegi wala lañ lay indil benn laaj. dafa am ku woo téléphone yow yaay imaam ñang ma ne waaw. mu ne ma sama benn xarit. dafa fase jabaram ñetti yoon déglu laaj bi de sama benn xarit dafa fase jabar jam ñetti yoon waaye jëli na ko bërki démb ba mu ngi këram ma lay laaj loo ci xam lu ma ci xam man loolu lu ma ci xamati wax dëgg yàlla loolu lu ma jëli na ko ba pare jëli na ko bërki démb ba mu ngi këram léegi man léegi lu ma xamati ci loolu wallaay wallaay wallaay xam nga loolu mooy li ma la wax rek dëgg yàlla nit ñi ñu eh, baal ma imaam imaam ah? nag loolu lu jër a waxtaane la sëy dañ koy foye lu jër a bàyyi xel te baatu fase naa di wax ne fu nu ko tuddee rek ah? wàññil wàññil benn taxaw na te da nga gis mer rek fase naa la yàlla xam na ne gannaaw suba ngeen àndaat façon yooyu gannaaw dafa semaine ba nga waxaat ko léegi léegi ñu indil la ci loo xam ne yow <laughs> yow yow Cissé da ngay am jaaxle <laughs> am na benn jigéen dafa ñëw na ma man de dama laa seet si ma ne ah lu xew. koo mhm. jógee mu ne ma yëmbal. Mhm. ne ma yaa yëmbal baal ma ne ko waa lu xew mbaa jàmm. Mhm. mu ne ma waa ndax damaa tàggoog sama jëkkër ba ñetti yoon ba buub naa samay bagages ñibbi ma ne mm. kon de doy na waat. waaw kon nga muñ rek yàlla mën na laa indil borom kër. ñu teg mm. ci fukki fan ak juróom. ma woowaat ma ne kooku kan la. mu ne diw ma ne ko ah numéro bi de xaw ma ko mu ne ma sa numéro waa ji laa lay woowee ma ne ko kuy sama waa ji mu ne ma sama jëkkër ja ma ne ko ndokk. la <laughs> <laughs> <laughs> imaam loolu loolu loolu jar na. xam nga pour wax la ne nit ñi. sëriñ bi dund gu. gu ñaagu karaj gi ñuy dund. loolu dulu moo tax dëkk bi. <laughs> foog ñu seetaat suñu bopp. <laughs> imaam loolu foog ñu bàyyi wor yàlla gi ñuy wor. <laughs> foog ñu bàyyi caay-caay gi nekkee. loolu foog ñu di ko wax. foog ñu bàyyi wor yàlla gi nekke waa kenn du leen si leen see jiitu imaam loolu. xam nga imaam lan nga sa teg. waaw su ne ak moom daganul. waa xam nga ànd ak moom daganatul. waaw déglul ma wax la sëriñ bi <laughs> déggoowaat bi damaa xam ne eh, na. Eh, eh. sama numéro waa ji la may wooye ma ne kuy sama waa ji mu ne ma sama sama jëkkër jama tàggool ma ne anama mu ne ma dellu naa këram. loola loo ca man. <laughs> <laughs> kay man la xam nga loolu mënoo ca dara. façon yooyu nag. mu ngi ne xuus ci dëkk bi te am na loo xam ne jaaduwul dara jaru ko maanaam adduna bu gàtt bi jarul loolu wallaahi wallaahi koom-koom jaru ko mm-hmm. bànneex jaru ko mm-hmm. Mm-hmm. Mhm. sëriñ bi mhm. koo fi mën a doon ak loo fi mën a yor mhm. bés dana fi ñëw nga wàcc ko fi dem wallaahi wallaahi wallaahi bu dee jongama rek la yàlla mu nga ak jongama rafet wa xuurun xiinun la wax ka am saali loolu un maknoon loolu mu ñoo gën ñii nee na jonga maa ngi fa yoo xam ne maa ngi ko denc yoo xam ne loxo laalagu leen ay janq lañu janq yu ndaw amaguñu fanweeri at yàlla ne na seen bët yi ñu ngi mel ne peru jamaa ca ne mhm. te yéen laa ko fa dencal mhm. te ki gën a tuuti le dina ci am soixante dix te doo màggat doo joxe dépense mhm. kon yu di yu fii war na laa yàqal foofa <laughs> wallaay wallaay wallaay nañ def ndànk nañu teey nañu teey te not suñ bakkan yi poñe ko yëf yi sëñ du dara bakkan la wallaahi wallaahi bakkan kese la nañu poñe suñu bakkan yi moytu bànneex yii fi ñu jëmee doxut baaxul mhm. te loolu sëriñ bi mhm. moo fees dell ci réew mi mhm. ñi ëpp ci nit ñi ci caaxaan lañu ne ñi ëpp ci nit ñi ci ak njubadi lañ ne ba pare tuddee ko yàlla ba léegi diine sax dañ koy kooj da gis nit ku la woo ci diine boo ñëwee doo fa fekk dara lu yonent bi gërëm doo fa fekk dara lu dëppook alxuraan doo fa dégg dara lu dëppook sunna te ñu tuddee ko diine askanale ko diine mais yu mel nii kañ la fiy kañ la fiy jóg mu ne xus ci réew mi te kenn ñemewu koo wax wala ku ko wax ñu mere la <laughs> sama classe nga xam ne kenn moomu leen <laughs> ñu yaakaaruñ dërëmu kenn ñoo ko ñemee wax luñ kenn sax kenn xamu leen <laughs> waaye koo fi yaakaar ne yaa ngi koy jëriñ boo ko waxee mu bala waaw ba kañ ñaata nit ñoo fi maye ay soxna yoo xam ne teguwul ci sunna teguwul ci diine ñu di ci sëy subhanallah façon yooyu ba kañ niti diine yi noppi ci niti nguur yi noppi ci ñu ne na réew mi am jàmm du mën a am jàmm gis nga nañ waxante dëgg. nañ laal góom bi fu mu nekk ñu okk ko. nañ wax nit ñu dellu ci njub. nañ dellu ci alquran nañ dellu ci sunna yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nañu moytu tappale yi nañu moytu njubadi gi wax naa ne weer a ngi yoo xam ne occasion la suñu neexee fi la réew mi doxee tàkk ba faw baax lépp jag mais suñ sàggane itam fi la réew mi doxee biime ndokk yàlla nag ba am nañ fi ay mag ñu baax. xam naa ne ñëpp duñ mën a sànku. Hmm. waaye suñ sañoon ñëpp baax. wallaahi wallaahi wallaahi benn benn yi rëcc. Hmm. suñ sañoon du am. ndax benn benn yooyu ñooy mu jaan nekk ci biir pénc mi di yàq balaa déwén ñu yàq. te ci guddi yonent bi lañ ne. sallallahu alayhi wa sallam guddi yonent bi lañ ne. sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi ci weeram. biir weer wi yëpp. leer la fees dell. leer googu war nañ koo jëriñoo. leer googu war ñoo romb occasion boobu ñuy raw. war nañ fexe kenn ku ci ne. ci sa jëmm. ci sa jëf. ci sa wax. ci sa alal nga dotti ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mais duñ ko def nit ñaa ngi sànni seeni alal fu ne di ko def fu ne sëriñ bi <laughs> wallaay ndeysaan lu tax duñ ko def ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wallaay di nga gis sax ku lay wax ne ci yonanti bi la koy def fekk defu ko ca ndax defin wala ndax wolof dafay wax ne màcc nu dimb dana tax dimba wallaay wallaay lu wér dafa am defin maanaam suñu mbokk mi Oustaz Alioune Sall yal na yàlla fay ko ma dégg muy am nu muy waxee léeg-léeg nga dégg mu ne ku bëgg a def lu baax da ngay dem ci techniciens yi xam ñu baax soo bëggee tabax doo wuti maçon. wallahi lu meññ nga bâtiment. booy def laal nga wuti menuisier. mais boo bëggee tiyaba da ngay dem ci technicien. tiyaba wallahi wallahi mu wax la naka ngay def ba am tiyaba mais bari na ku sànni alalam du am tiyaabo. du am tiyaabo ñàkk alalam. te alxuraan dafa wax ne. lépp lu ngeen joxe yàlla dina ko ful. wa ma anfaqtum min shay'in fa huwa yuxlifuhu. wallahi wallahi waaw. léegi nag seetal. li nit ñi di dépenser li nit ñi di génne seeni alal te pertement rek la leen di jural kon li ma bëgg wax mooy bokki jullit yi fokk ñu delluwaat ci alxuraan. foog ñu delluwaat ci njàngale yonent bi parce que nag waxtu wu ne war nañ koo wax mais fii ñu toll loola lañ war a wax nit ñi <laughs> nañ wax nit ñu delluwaat ci yonent bi ci suñu wéetee suñu wéttalikoo <laughs> suñu jubee <laughs> suñu suñu su leeree ak su lëndëmee suñu jegee ak bu soree dama dégg démb oustaz bu baax oustaz Samba Diop yal na ko yàlla fay ma koy seetaan ci télé bi muy wax nee na njàngom alxuraan mi xoolal ni mu bëree ci dëkk bi. te dara baaxagul. mais mu mu ne maa ngi leen di ñaan dara te loolu man essayé naa ko dama koy def. moo tax bi mu ko waxee dama kontaan. ndax man damay def loolu. mu ne bu ngeen bëggatee jàng alxuraan wéet leen fu kenn nekkul. shawxa boobu ak dégg googu nga cay am. suñ nee nañ jàng kaamel nga toog fa doo ko fa yëg. soo ko jàngee ca mbooloo ma doo ko fa yëg mais wéetal. wéetal. ويتال جانغ القران ديف تدبر كرزا القران ديغلو كو اكسا اكس واخوما ديغلو اكسا ندوب مي ديغلو كو اكسا روح فوك نيت ني دي داف لولو دي ديغلو القران اك سين روح دي جيفانديكو القران اك سين روح والله والله مي خولال تي سيرين بون ني ديو فاتو ني رك ني نان واتي كامل ناخ اديون نا كامل لوم ييغلون بان تي واتي <laughs> ku jàngul alxuraan <laughs> toppatoowul alxuraan mhm. bëggul jàngkatu alxuraan mhm, mhm. waaw nga ne danga koy wàccil kaamil ndax moom fu mu tegoon kaamil lu mu koy jëriñ aaya boo jàng rek aaya baa ngay wax ak moom moo tax foog ñu bàyyi xel ci loolu nañu delluwaat ci yonent bi delluwaat ci alxuraan parce ñaar yooyu ñoo fi ne loo fi wax nit lu dul nii da nga koo bëgg a nax نيت ني نلان ديلو تي القران نيت ني نلان ديلو تي يونتي صلى الله عليه وسلم سو ديمي كي بارا بي ني جانغي كامل ليلى يو بو يوري بن جوكي بلا غا باري نيت جانغ فوكي والله والله سيرين والله والله دغ لا دغ لا لو لو تاخ غاكاي ديف 1500 يلا تاي جوخ ما 750 داكو جا والله والله والله يلا امنا لو اوب لولو amna lo nopp ay mbotan ci alquran boko saxo am lépp lu wér lu wér lu wér da nga am sutura aduna am sutura àllaaxira do soxlal ken dara wallahi wallahi yalla yàlla defal dégg ak topp tabaarakallah macha allah macha allah baarakallah baarakallah imaam yóbbal bi amna na solo macha allah yàlla nu yàlla defal deg ak top comme ni ko waxee rek fa tabaarakallah yàlla gëna defar jikko yi gëna defar ruux yi comme ni nga ko waxee rekk nekk nañ si weer boo xam ne occasion bu mag a mag a mag la ngir nu gën a defaru eh, ni nga ko waxee gën a wéet eh, roq mën a kan eh, seet la nga def si ay yiw nga dogu ngir fëlandiko lan la nga nekk te muy lu yàlla gërëmul nga dogu si mm, noo tàggoo ak moom mm-hmm. fa tabarakallah eh, am na solo imaam mhm. eh, sëñ Malick boo mënee am loonu yëkkatil tuuti rek boo ko defee nu doog a ñëwaat wax ne mën ngeen na topp si 33 821 yaa ma leen gënal muhammadu rasulullahi su la yàlla mayee baat bu neex nga mën a way te wayoo yonen dee nga ka way dee na sa way wa niil na gëjoon naa di taalif ngir ñii di sàcc taalif te seeni baay fer nu baasin fa yaasin kooku mooy muhammadu rasulullahi ku lay jaay taar na sa xel dem si yonen ka ba yàlla yónnee ko sooratu yaa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 ci walu chance ak ci walu seni koom ngir mu jëm kanam ab téré la bo xamni tamit contre jinne chance rab yi waaye a ab téré ngi ni bu mun chance waaye tamit di joxe bayre téré bi di karafil amna ci ñaari version arabe ak français ñukoy koy ci junni ak ñaar témèr 6000 francs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 barakallah Alhamdulillah, rabbil alamin eh, jërëjëf imam mohammed ñang jërëjëf seigne malik sok fatali mbok yi ne sen émission ngeen di déglu si municipal de dakar 95.5. point hmm. di mercredi 17 décembre 2016 lu nekkoon si waxtaan boo xam ne ngir jikko yi gën a defaru la fa tabaraka laa dégg ngeen imaam sànq mu ñëwoon si kóllëre ñëwoon si luy defaroo fa tabaraka laa muy yóbbal bu ama am solo comme ni mu ko waxee rek mu ngi ñaan yàlla may mu dégg ak topp eh, fa tabaraka laa xam naa bu fekkee am na ko ne si yoon bi mën na nu bokk ak ñoom émission bi. Eh, waaleykum salaam wa Eh, yaran hmm? ah, maa ngi yal yàlla nangu te barkeel. Ah, di di rafetlu waxtaan wi. jërëjëf jërëjëf. Ah, man de Abou Talib bu ñu may woowee Abou Talib. Eh, jërëjëf sëñ Abou waaw ku sopp émission waa nag. <laughs> jërëjëf jërëjëf yal yàlla barkeel la. amiin amiin ñun amuñu chance jàngu alxuraan nag. Eh, ndeysaan eh, sopp ko bëgg kër. <laughs> waaw wax dëgg yàlla ñoo ngi jàng ñoo ngi ñoo ci émission bi daal. wallaahi ndeysaan yàlla barkeel. ñoo ngi fi jàng diine ñoo ngi fi jàng xam-xam tamit. wallaahi yal yàlla barkeel lépp. waaw ah, di leen ñaanal yàlla maa ko yàlla boole. waaw bëccëg bi sax ma nga bëccëg bi sax ma nga oto. ndeysaan dëgg la dëgg la. waaw xam naa suba sax bëgg naa fa ñëw incha allah. incha allah yal na yàlla yombal te barkeel. waaw man moom léegi bokk naa si waa Duha wax dëgg yàlla. yal na yàlla may la barke Duha. ndax ndax maa ngi ciy jëriñu bu baax. yal na yàlla may la barke Duha. waaw yàgg naa di wees yàgg naa di wees yaakaar naa depuis 2014 ba tey maa ngi maa ngi si. wallaay ndeysaan wallaay yàlla na gën a yàgg. muy Sock FM muy Siwal dëgg la dëgg la dëgg la dëgg la dëgg la ndeysaan. jërëjëf yal na yàlla barkel la. jërëjëf jërëjëf la fiik yal na yàlla gën a yàggal ànd bi yàlla yokk barkeel fàttali ñëpp wadduha point org mais ko ku fa jaar rek am lépp loo bëgg a xam si wadduha mhm. wadduha point ya, org fa tabarakallah eh, hmm, wala su dee youtube bi boo defee mara sise it eh, da nga am yennat si ay vidéo fa tabarakallah nu jël ki si yoon bi bismillah alaykum salaam wa rahmatullah mm, sëñ mbeng waaw eh, mbeng nu ngi lay siyaare sëñ abdoulaye mbeng mbeng jërëjëf Mbeng alhamdulilah Mbeng ba reer nga ba pare alhamdulilah sëñ Abdoulaye wallaay wallaay dëgg la imaam de macha allah tey moom dama ne ko si barke weer bi daal sàkk noonu ko ay jamono ma xaw a waar waaye tey moom nee naa ko si barke bi daal yéene naa wettali konte wallaay wallaay wallaay koy ziar. wallaay jërëjëf Mbengue. di di di sakku jant yéen ñaar jërëjëf jërëjëf wallaay mi ngi lay fay sama kaddu. wallaay wallaay wallaay jërëjëf jërëjëf Mbengue. <laughs> di nuyu bu baax sunu wëllëre sëñ Alassane Ba. Eh, eh, di nuyu Soxna ya Soxna Aminata Soxna seta di nuyu turandoo ba tamit Alxaaji Modou du baax tabarakalaa di nuyu ñi dëkkee foofu ñëpp fa tabarakalaa di nuyu sunu kóllëre sëñ Kalidou Gaye mhm. eh, Kalidou ku fidèle la si Wadduha di jox di koy jox sunu nuyoo mu joxal na ko Cheikh Ahmed Tidiane Niang fa tabarakalaa bu daaray faccal yëpp nu ngi leen di nuyu di leen siyaara di leen ñaanal بسم الله السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله آه الحاج مودو آه جاي جاي dañu leen ziar. yal na yàlla nangu tabarkeel Gaye. yal na yàlla barkeelal lépp. amiin amiin Gaye. ñu ngi rafetlu bu baax jotaay bi. jërëjëf jërëjëf Gaye. dama ne naa dugg rek baax day rajo bi de moom tey moom maan ko moom <laughs> a sant Faal. fan ngay woote ah, si ah, Tëngéej. ah loolu xaw na doy waar sëñ Malick. <laughs> waaw xamu ne nu mu fa demee noonu. <laughs> ah mu ne am na ku woote léegi Mboro te mu ngi koy déglu. ah man de xamu nu demee noonu de jàpp naa ko sonn mënu ma ko am. est-ce que est-ce que. waaw ah, ñu ngi ziar sëñ Malick mu ngi lay dégg. jërëjëf jërëjëf jërëjëf. bu baax a baax a baax di rafetlu. jërëjëf jërëjëf jërëjëf. sëñ Modou waaw sëñ Mountakha moom. wallaay sëñ Mountakha ni dugg na léegi. dëgg la la ñu a di rafetlu ko yokk. amiin amiin amiin kay. yokk xam-xam bi. amiin amiin amiin amiin kay. jaar waa rajo bi yëpp macha allah di yàlla. jërëjëf jërëjëf aw ñu ko fay. wallaay gaal suñu borom rek mu fayal la boppam. jërëjëf jërëjëf. taxawu beeg lépp rafet na jox ak su nga ñu teg yaa ngi ñëpp daal waa Wadduha yëpp yëpp nañ suñu bopp daal wallaay wallaay kon nag ñu ngi rafetlu bu baax a baax a baax jërëjëf jërëjëf fu ñu mën ci nekk si àdduna ak fu ñu mën nekk rek suñu xol ak xel yëpp ñu si yow daal wallaay jërëjëf gars yi moom macha allah yàlla moo am fay gi daal wallaay wallaay jërëjëf jërëjëf ana sëñ Habib sëñ Habib waaw waaw sëñ Habib boobaa léegi sax nañ dégg dégg dëgg la dëgg la sëñ Abdoulaye ak Mohamed Abdoulaye <laughs> wallaay wallaay ah, wallaay euh, boo ci ñëpp wallaay ndeysaan wallaay naan ku lim jëm ku lim jëm daal macha allah rabbi arajo yi am na macha allah wallaay dëgg la dëgg la dëgg yàlla xol yi rafet na jërëjëf jërëjëf ñu ngi jaar ñëpp di bëgg ñëpp ñëpp bu baax a baax jërëjëf jërëjëf gudd fan amiin amiin amiin ànd bi ñu ànd ñu yàlla boole ñu yàlla ñu yàlla gën ñoo boole amiin amiin amiin ànd bu gën a rafet yaako yaatu barke sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam jaar ñëpp di weeru gàmm ko tedd jërëjëf jërëjëf alhaji Madou amiin amiin kay bu baax a baax jërëjëf imaam axmed ñang laa nekkal ak moo sëñ malik sok imaam ñang laa nekkal waxtaan ba am solo sax si defar jikko yi si jikko yi la doon waxtaan tey si jikko yi yàqu-yàqu yi xam xam nga dégg-dégg yi am fan yëpp wallaay wallaay dëgg dëgg la imaam imaam mohamed wallaay ñu ngi ziar baax imaam ñu ngi nangu ziar bu baax a baax a baax ay kontaan si yow bu baax a baax wallaay ndeysaan nañ dégg waaye baax la ku am kolere gis nañ sa taxawaay wallaay wallaay dëgg la dëgg la naa ku rafet xolam macha allah lu wér lu wér sax lu wér lu wér lu wér am na yàlla moom nii rek lay def ñu baax lay dajal wallaay wallaay dëgg la dëgg la ànd bi nekk loo xam te dëgg ak ak eh, euh, kii rek moo ko wér lu wér lu wér lu wér lu wér ñu ngi rafetlu bu baax a baax a baax wallaay yàlla ñu mel na yéen moom dañ ciy kontaan wallaay wallaay yàlla xanaa yàlla di leen bàyyi ba ca kanam ak kanam ak kanam amiin amiin amiin amiin waaw baax a baax wallaay wallaay gay danañ war a waaw wax dëgg yàlla incha allah di nga ko déglu incha allah <laughs> waaw dina am rediffusion incha incha allah <laughs> jërëjëf sëñ Modou bég nañ lool bég nañ lool maa a kontaan naa trop jërëjëf jërëjëf jërëjëf rawatina ñoom nga def ak jotaay bi sëñ Malick mu <laughs> a baax jërëjëf jërëjëf na maa kontaan bu baax Eh, ma ne ko naa bàyyi rek ñu ah, jërëjëf yal na yàlla yokk ko barke moom it ku fidèle la macha allah ku am kolere leen doon waxtaane Alhaji mm-hmm. eh, Modou Guèye euh, nu ngi koy ñaanal di ñaanal ñi ne si association bi ñëpp fa tabarak ni mu ko waxee si imaam rek lu wér la ndax bu ma jumul depuis 2016. <laughs> yàgg na la xamante. <laughs> boobaa léegi foog naa mën na fukki at. macha allah lépp ngi rafet. waaw ah, danaa lu manqué rek si man la waaye yow matal nga lépp. su paasee jëmm ju ñu wax Ibrahima Khalil Ndiaye. yaay ñaareelu nit bu ma. toog bu ma njëkk invité si rajo. Eh, si expérience Anor. ndeysaan ndeysaan fa la loolu kollëre la. sant rek eh, loolu ñaan yàlla yokk nu ko sàmmal. yàlla yokk lay xéewal ak wér. ndax ñu mel ni yéen ñuy jar di ñaanal ngeen. Eh, macha allah macha ay defar doomu aadama. bisimilah. salaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatullah. Mara Cissé. waa Kañ Ahmad Tidiane. waaw maa ngi ziare. jërëjëf Diop mm-hmm. Diop. Cheikh Tidiane Diouf. Diouf Diouf Cheikh Ahmad Tidiane Diouf. <laughs> maa ngi ziare euh, imam nañ. wallaay wallaay <laughs> jaar naa foofu pour jaar. ah ndeysaan ndeysaan. waaw dégg euh, kër kër ñoom asu. waaw. te nga xam nga daa am ceeb bu mu mosoon dem foofu te comme déggoon naa ko ci rajo bi nga invité woon ko. Mm-hmm. waaw. ma demoon foofu. Mhm. laaj bi dama foofu la dëkk man ma dem jaare ko. ah ndeysaan moom ba mu ne ma tuddi na ko doom. ndeysaan eh, eh. loolu hasard la woon ci dem rajo bi rek laa ko. ndeysaan ndeysaan wallaay wallaay. Mm, Astou Diouf waaw sama sama jigéen la Astou Diouf <laughs> maa ngi ko tuddee doom wallaay. Eh, dama la dama ci rajo bi. ah ndeysaan. par hasard ma ñëw ko sama jigéen bu ma jàkkaarlool ko. dëgg la dëgg la maa ngi ko tuddee doom. ndeysaan ndeysaan ñëwoon fa nag far ndekete moom ñoo jàkkaarloo. ndeysaan ndeysaan. <laughs> Ah, nga dëgg Diouf. ndeysaan Diouf Diouf. sëñ Babacar Niakh mi ngi lay nuyu duggoon na léegi. waaw moom kontaan bu baax. wallaay wallaay. Ah, macha allah. ah suba daal. Uh-huh. Mm-hmm. boo déggee moom rek di nga ko xam incha allah. incha allah wallaay wallaay jëf kontaan nañu baax Diouf. yal na yàlla barkeel. jërëjëf ndeysaan ndeysaan wax na dëgg ndeysaan. Ah, ana di ñaan. comme ça kon ci weeru weeru yonente bi lañ ne. wallaahi wallaahi. xanaa suñu <laughs> euh, daal di yéen salaat yi. incha baax na incha baax na. baax na baax <laughs> na baax na. macha allah jërëjëf jërëjëf si Ahmed Tidiane <laughs> dama seet si woon benn jigéenam. Mhm. ndeysaan tombeek ñooñu di ma tudd mu ne ah kii fii la ndeysaan ñu ne ko ñu ne ko moo jur xale bi ko ndaw si ne ko man la tuddee kii. gis nga de macha allah. ndeysaan. wallaay wallaay. yal na yàlla fay ko. amiin amiin amiin jëf jërëjëf na yàlla fay ñëpp waay. amiin macha allah eh, am na solo fa tabarakallah nu ngi koy siyaara moom it Cheikh Ahmed Tidiane Diouf. Hmm, fa tabarakallah nu ngi koy siyaara si mawlud bi 33 821 14 85. seen émission Wadduha si Radio Municipale de Dakar 95.5. Le 5 ñu fi wettali kon uh-huh. Niang. kon Imam nu ngi woon si eh, makaarimal axlaax. Uh-huh. Eh, fa tabaraka nu ngi woon si amana, si uh-huh. beneen bu ni bu ni ñëw. <coughs> Eh, xam naa am na lu xaw di. lu lu ni xaw di fooyee. te muy lu doy waar. nu baal ma si kàddu gi mooy li ñuy wax fen. lu baal ma si kàddu gi lu bëree bëri nag tuub naa ko. waaw dëgg la wallaay waaye ngir uh, nee na foo gis musiba rek boo toppee tànk ba. Mhm. ñaare sa loolu la soso. wala soso. loolu fa tabarak la imaam. bu mhm. amee lenn loo si mën a laaxee biiree mbokk yi nu gën a defaru. Mhm. si weer bu tedd bi di weeru mawlud nabi sallallahu alayhi wa sallam ngir nu gën koy maytu. Eh, lan nga leen si laaxee biiree. Imam Mara Cissé ñu ngi mhm. delluwaat rek mhm. di kontaan ci ni nga doxalee waxtaan wi mhm. li nga wax léegi rek muy baat boobu te wolof di ko wax wax lu dul dëgg wallaahi wallaahi <laughs> te muy lu gën a yomb ci jamono eh, allahu akbar mais yonent bi sallallahu alayhi moom dafa wax ne جولي دينا دفلونه مام دفلو والله الله اكبر وانت من جولي من دفلونه من نكو دف واي نك فن جولي دوكو دف والله والله ليغي دا سيت نك تي جامونو بي <laughs> نغا سيت ليغي تي جامونو بي كي نيت ني ني ني ني نين كوي واخه اك ديكو جيف يماتون صاح تي واخ كو كيسه دا نغي كو خامني جيف جيمي جيف صاح جيفي فن لا الله اكبر دا نيت موي جيف بالا فك نيت موي جيف لاموي جيفانديكو دو دغ الله اكبر مودا القران مون تيرو نانيو ليرال ولا تخرنكم بالله الغرور حتى دين ديغا نيك نيت من نتي نيو دي جيفانديكو لو خامني دين لاكو تودي موي لي ما وخون واي لاكو لال دو دين كون فين ديكنا واخ ديكنا تنك جانغ نانتي القران بات يو بري موي ويل للمكذبين الله اكبر سيتال لو رك baat yu bari la baamtu ci alxuraan waylun lil mukazibin toskare ñeel na fenkat yi moo tax loolu war nañ ci bàyyi xel bu baax a baax a baax comme yonent bi ne nit dina def lu ne loolu parce que def na nit su bàyyee fen rek jub wallaahi wallaahi wallaahi wallaahi maanaam xam nga eh, suñ jumtuwaay yi ñuy jumtu jëfandikoo léegi léeg-léeg da ngay am kersa allo man la diw <laughs> maa ngi pàdduwaa Eh, eh. te ki lay wax maa ngi Patte d'Oie mu nga Géejawaay allo man la diw maa ngi ñëw embouteillage bi la te ki la koy wax mu nga tëdd non da dem ba yàgg eh, hmm. te loolu dañ ko xeeb mais catastrophe la ko seeti benn waay bi ko jox rendez-vous mu fekk ko bureau woo ko mu ne ko dama génn di dama am séminaire <laughs> nee na <laughs> motul une minute mu génn jàkkaarloog moom. mu ko. <laughs> allahu akbar. Ah. te li muy jur. ëllëg yowmal xiyaam alxuraan dafa wax ne ëllëg yowmal xiyaam ni ñuy xàmmee fenkat di mooy bu ñuy ñëw seen kanam yi day ñuul kukk nee na seen kanam yi day ñuul kukk su ko defee nit ñi ne waaw ñee ñoom lu seen lox seen kanam yi ñu ne ñee ñooy fenkat yi ñoo doon fen fenkat yi ci àdduna loolu kese waroon naa tax ñu moytu tax alxuraan àdduna ci loolu yàlla nee na yowmal xiyaam tara alladina kazabu ala allahi wujuhum muswadada nen da ngay gis da ngay gis ñuy ñëw nekk groupe mais groupe yoo xam ne seen kanam yaa nga lëndëm ñuul kook ñu laaj waaw ñii luñ mel ni ñu ne ñii de dañ daan wax lu dul dëgg moo tax sëriñ bi war nañ bàyyi xel lu bare bare xam nga yàlla dafa am ay cir yu ñu defal moo tax nit ki li muy wax ci làmmiñam amul solo li muy fas ci xolam moo am solo moo tax yàlla bu ëllëgee day téye làmmiñ ne ko yow laajaguma la mm-hmm. <laughs> yow ma tashhadu arjuluhum lay wax daf mm-hmm. naan tànk yow laay laaj mm-hmm. question yi ñooñu lay posé question yi wa tukallimu aydun wa tashhadu bi ma kaanu yaksibuun bu boobaa cër yi la ñuy laaj ñoom nopp ñoom bët ñoom tànk ñoom ñoom ñoom bakkan ñooñu lañuy laaj ñoom bopp yéen lu ngeen doon def su fekkee da ngaa yaakaaroon sa làmmiñ woo layee yàlla na làmmiñ tey du fi wax. wax loowuma ko. te boobu kuñ wax wul doo wax. wallaay wallaay moo tax nga gis tànk di am sañu sañu wax parce que dañ koy wax loo. loolu nag ku ko xalaat. fii ngay teel a defar sa bopp balaa boobu bés boobaa ñëw. ko defee lan loolu sëriñ bi. mooy la ma la waxoon ca tàmbali ba. mooy fokk ñu defar suñu bopp. dafa suñ bopp nag du dara lu ñu roy yonent bi. wallaahi ci kenn nax. Mm-hmm. yonent bi ngay mën a roy ci ay jikkoom ci ay jëfim mm-hmm. rek baax soo ko royul mm-hmm. doo doon kenn ak noo mën a tudd roy gi ñu koy roy nag mooy ñu jàng alquran. wallaahi xam lan mooy njàngale moom yonent bi. sallallahu alayhi xam lim ñu wax te mu wér. ñu <laughs> jaar te def ci suñu kéemtalaay kàttan xam nga yonent bi kenn du mel ni moom wallaahi wallaahi maanaam comme ni mu doon jaamoo mm. nam meloon ak noonu étape mm-hmm. boobu duñ ca yegg ñun mm-hmm. mais yàlla daf ñoo noppal dafa ne mm-hmm. waabudullah ma istataatum defal sa kéemtalaay kàttan maanaam génn defal sa effort ba mu jeex ba yàlla xam ne usé nga sa effort mu xam ne nag kii fii la man lii fii la yem waaye liñ xamul kay mooy ki jéemul dara am na ñoo xam ne jéemu ñoo roy yonent bi ci dara sallallahu alayhi wa sallam te boo leen woowee ay jullit lañ lay wuyoo ñoom daal ñu nga lem yem seen lislaam ci ajjuma ba ajjuma bu leen fi fekkee ñu julli ji ñooy gën a rafet basin ñoom noonu lañ ko teg wut basin bu rafet sijaada bu rafet wut kurus gu rafet ñoom noonu la ñu def defee ne mooy diine sëriñ Seex ne na lay sa diine bi sabxa wala imaama nañ moytu yooyu. dëgg la lu wér yàlla yoonam newul ci kurus gu gudd. ak sikkim ak kaala. doyewu ko loolu. sama benn xarit daf ma ne. sikkim sunna la. ma ne ko xam naa bu dee sunna itam de war nañoo seet parce que yonent bi daf ne woon. na ngeen wuute. ak juif yi maanaam yahood yi. melokaan. waaye sëriñ bi tey. football kat boobu ñu daan wax lalaas ca américain moo gëna a gudd gudd sikkim ñëpp <laughs> ab américain la boo demee juif yi gën a saay-saay tey la gën a gudd sikkim kon yëf yàlla yoonam newut ci sikkim bi sikkim ragal yàlla lal xana kay tax ñuy wax mais kaala gu ragal yàlla lal mais kurus gu ragal yàlla lal waye kurus go xamne ne caay ko lal lu ko yàlla di doye wallahi wallahi wallahi te kurus haqiqa la won du won du woon dafa am lu ko taxone a wallahi wallahi wallahi waxna ko fi defna ci ben émission yonent bi ñun ñep sallallahu alayhi wasallam gis nañ ne keroog bi mi def isra wal mi'raj dafa amon lu ko yàlla boole lon mu war ko ñu tuddé ko al buraq mais al buraq bobu ci la mag ñi inspiré wu wut kurus rawatina wa tarixa bi moo tax ñu am juróomi seede am ñeenti tànk akub geen ak bopp ñu naan juróomi seede ba wutal ko ay cimbir cimbir sax ca kanam loolu xaqiiqa la wallaay wallaay wallaay waaye ku jóg rek gàddu kurus te caay-caay lal ko nañ ba loolu allahu akbar xam nga baat bi wolof la siise nga baal ma eh, eh. temps baa ngi jeex mais kurus baatu wolof la Mhm. mais kurus tuddul kurus sabxa la tudd. Mhm. mais laaj la bu ñuy laaj kurus. dañuy laaj kurus. kurus. <laughs> waaw kurus mhm. la baat la la bu ñuy laaj. dañ ne kurus kan moo rus. ki koy jëfandikoo te sell. te di ko jëfandikoo niñ ko kii moom la ñuy laaj xaw ma kurus de waaye moom bokk ci. wallaahi wallaahi lay tekki rek. waaye ko jëfandikoo du mukk wallaahi koy jëfandikoo du rus. <laughs> ki ko def tiitër nag. Eh, eh. bu yeboo mu pare beneen bi ci des maa ngi prêter attention ci nit ñi bari na sax ci mag ñu koy def mhm. mais nañ ci bàyyi kurus kenn du ko def ci baat sëriñ mhm. ak bari léegi ak bari <laughs> loolu mag ñi dañ koy tere ku xam xaqiqa bi ci kurus mhm. tey masalan sëriñ bi oto yi ñuy tuddee 4x4 ku ne xam ne dafa mën a daw waa tey boo ko jëlee lonk ko ci sa baat bi <laughs> wala boog nga jël buum lonk ci sa baat bi lonk ci 4 kaat 4 nooy def da lay watat lu wér lu sa raw 4-4. ku dul li muy daw. lu wér lu wér. ki xam li muy daw seede benn mag mas naa koy wax bu <laughs> nekk Saloum. Eh, ñu ko benn jaam dikkaloon ko problème boo xam ne bu yéeme la nekk ba Amérique ne war doon ko war a si te peine de mort lañ ko war a def. Mhm. ba nu ko dikkalee. mu ne leen fan la nekk nu ne ko ma nga Amérique de mu ne foofa day oto mënu faa dem nu ne ko mm. déedéet mu ne saxaar mënu faa dem ne ko déedéet mu génne kurus gi daal ne waaye lii dana fa dem. dana fa dem <laughs> fa dem. kurus gi la génne ne wante lii dana fa dem. dem bu gaaw bu gaaw. wallaahi wéet ak borom bi. ba mu paree mu ne leen man ngeen a dellu. denn eh, jamono yooyu téléphone bëreegul. téléphone bëreegul. ban ñibbisee nu ne baal nañ ko. waaye ah, dañ ne faaw day génn réew ma. ndok na ñëw. <laughs> suuf nga xam ne bii li nga wax rek. kurus kurus kurus. bu ko yàlla nangulee rek du rus. te te te Serigne Cissé maa ngi lay wax <laughs> ñi ko doon weddi démb. tey adduna yey na leen xam nga lu tax. seetal ñi kurus faloon. Ah, mu ngoog ak ñi fetal faloon. <laughs> beneen bi ci des. <laughs> mooy su fekkee sa xel daf laa nax. Mhm. ba nga naan ki ne Amérique lu ko kurus du def. Mhm. waaye dama ne ki ne. Tamba di yónnee crédit Dakar fu nga <laughs> ban fil la crédit bi jaar ba. ex wallaay wallaay allahu akbar. ana isi yi. lu wér lu wér lu wér. ana yàqal ma yi. ana séddoo yi wallaay wallaay loolu ku ko def du ay tubaab war a xam ne ba baati na leen raw. baati dafa am fil gu jógee Tamba ba egg si sa portable. lu wér lu wér te léegi rek ngelaw li rek nga jot sa crédit. lu wér na ana ana yeneen yi ma bañ a publicité ana <laughs> fii li ñuy dencee xaalis yi. ñoom <laughs> nangam diw. <laughs> kon nit ñi nañu jaamu ji yàlla te jéem a gëstu ji mm. xaqiqa yooyu loolu mooy lii jëriñ nit ñi mm-hmm. Mm-hmm. moo tax ñi ko fi bàyyi ñëpp perte nañ mm-hmm. allahu gis nga ba ci waxkat yi ñuy wax ci diine ku ci wacc kurus dootoo wax luy defar ma wax la ko tey wallaahi wallaahi wallaahi maa ngay wax dama ne ñiy wax ci diine laa wax ku fi wacc kurus dootoo wax liy defar da ngay mujj nekk un perturbateur di wax rek nit ñi jàppee la comédien wala ñu jàppee la kuy tànqal nit

yàlla nañ gën a. incha allah fonk nu gën a fonk kurus ko comme nan nga koy waxee. waaw fonk leen ko de. <laughs> maytu euh, nanu koy foyee di. def ci baat def si baat ak leneen. <laughs> warmaal ko bu baax. warmaal ko bu baax waaw saa yoo ko yoree rek nga xam ne mu wóor la ne da ngay connecté wu direct. ñaar ñaar yi <laughs> ñett yi iblis gën a soxla ci nit. dinaa la ko wax tey ñett yi la. Mhm. mooy kurusu nit ki. Mhm. sijaadaam. Mhm. potu ndaam. bu ñëwee ci sa potu ndaa tufli ci dootoo wér bay laa yomi diine. bu feeñee sa sijaada uh-huh. saw ca nga uh-huh. baal ma baat bi uh-huh. tuur ca ndox dootoo jaamu yàlla ca sijaada ba lu sobe na ba pare bu laajal sa kurus def ca sobe pare nga dootoo ca jaamu yàlla moo tax mag ñu wutaloon ko ngise buñ pare dugal ci ngise ga takk buñ pare lem seen ñi naan la dëppal potu ndaa duñ ko dëpp duñ ko dip wa naa ne dëppal potu ndaa la tekk yooyu dafa amoon amoon solo mooy tax nit ñi wératuñ loo ci gis wallaay wallaay wallaay wallaay dëgg Mhm. parce que potindaa yi ñu doon naa lépp seytaane tufli na ci. wallaahi wallaahi poisonné nit mhm. seen sago di def mhm. bêtise. dëgg la dëgg la. yéen yàlla dool sutura. bëri na allah ma ne ko lu am solo nga wax dénkaane bu ama ama am solo la. kon baax na lool nuy e, jàngal njaboot gi nuy muslu. si noon boobu di saytaane e, fa tabarakallah di leen jàngali nuy tudd yàlla si lu nu mën di def rek dinaa koy wax si mission yi di leen jàngalit nuy laab nuy saxoog laab Eh, fa laa bëgg alxuraan di koy jàng eh, lu am am solo la yooyu yëpp day defar ruux day defar xol te loolu su jàggee rek fa tabarak laa doomu aadama jag kon sëñ Malick eh, xam na looy looy yokk si la imaam wax waaw damay laa biire doomu aadama yi ñuy déglu rek mm-hmm. képp koo xam ne si moom dogal na mm-hmm. nga xam doom joo xam ne si da bëgg si borom bidal ko mm-hmm. ci kàttanu yàlla. ci doole alxuraan. soo mënee bind sootu faatilu kitaab. maanaam nga bind ko ba ja xijina siraatal mustaqim. maanaam nga baamu mustaqima. lim ki nga bëgg mu jub. wallaay lu am turam. lim ba mu la jox da bëgg mu jub. nga bind ko lim booba. def ko saafara. jox ko ko mu di ko naan. loo am la. bu dee ko bëgg mu jub rek incha allah rabbi. wallaay wallaay. su ko dee jëfandikoo yàlla dana. Mhm. jubal xolam. wallaay wallaay wallaay. ba tey bu fekkente ne loolu jàppandiwut. Mhm. ku ko man wala nga jàngalu ko. Mhm. nga bind lu yàllaahu yaa muxallibal xuluubi. xallib xuluubanaa anil xuyuubi. képp koo xam ne si da nga am ay doom ci dafay xayib. wala jukkum neexu la. Mm-hmm. wala bëgg muy def lu baax. Mm-hmm. soo ko bindalee incha allah rabbi bu ko dee naan bu soobee yàlla. Mm-hmm. suñ borom mën na koo jubal lool. kat yàlla wallaahi am na solo. macha allah loolu ëpp naa bañ wax kat. ndax <laughs> ihdina siraatal mustaqim. li ñu doon wax lépp si siraatal mustaqim la tënku. Mm. Euh, te macha allah njaboot gi li ma koy wax toujours rek ne ñu war a defar la naa di wax toujours ne alal yëpp njaboot a si gën waaye njaboot tamit bu tegee siratal mustaqim moo bénéfice gënu koy rëy dundandoo moom xéewal lay doon te jiitu bàyyi ko fii toujours da lay yónnee xaddiya te ni nga ko waxee fa tabarakallah la ni def si chiffre kanu bëgg mu jot si jot si. Mm-hmm. fa tabarakallah noonu lay demee si yiwu nit bu fi bàyyi ko lu nu ko yónnee si yiw ak i ñaan rawatina muy njabootam noonu la si jotee kon nan gëna a passif lool si njaboot gi mhm. ba yàlla may ñëpp siraatal mustaqim mhm. ma baax ñëpp rek comme dañoo nekk si weeru Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam salaatu bu am am solo mhm. doon naa koy wax lu bëree bëree bëri fa tabarakallah salaatu bi lim bi mu ngi doon deux mille quatre cent trente xam naa comme temps bi jeex na euh, dina dinaa ko danañ ko bind bàyyi ko si boutique ba. def ko ay copier ngir ñu ko soxla ñëpp salaatu la boo xam ne soo ko def fa tabarakallah yàlla dana lay yokkali xéewal euh, dana la yokkal barke dana la yokkal wërsëg fa اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد النبي الكريم صلاة تفتح لنا بها ابواب الارزاق والخيرات من قسائم فضلك العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد النبي الكريم صلاة تفتح لنا بها ابواب الارزاق والخيرات من قسائم فضلك العظيم صلاة بو تبارك الله صلاة بو بارك الله بو julli seenent bi sallallahu alayhi wa sallam dina day ubbi xéewal day gën a rag tax gën a ragal yàlla tey fa tabarakalaa day gën a raxas xol e, salaatu bi nag yoon la boo xam ne képp ku koy def fa tabarakalaa yàlla dana lay yombalali xéewal ay xéewal dina lay bett e, yàlla dana lay barkel tamit mm-hmm. lim ba mooy 2435 mooy tolloog salaatu bi e, comme si weeru gàmm la nu nekk nu jox ko ñëpp yóbbal ngir nu barkelu si imaam dafa mel ni minit yi bareetul bareetul xam naa <laughs> nu bàyyi la bu fekk am nga looy looy dénkaane rek li ñuy dénkaane rek mhm. mooy di ko dénk suñu bopp mhm. mooy ñu góor góorlu lool ci weer wi rawatina ci fan yi ñu nekk mhm. ci li ñuy tuddee gàmm na ñëpp fexe màggal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak foo ko mën a màggalee ji nag waaye li am solo mooy na ko sa ruux màggal wa ak am solo maanaam yaramu kese amul solo mais ñii jóg di dem ak ñi nga xam ne demuñu dañoo toog fa ñu toog nañ fexe ba màggalee ko ci jàngum alquran nañ fexe ba màggalee ko comme li nga joxe léegi muy salaatu ala nabi ci siixa boo mën nag salaatu ala nabi amul ndend siixa bu la yàlla may nga man ko rek jël ko beneen bi ci des mooy salaatu ala nabi du doy wallaahi ndeysaan dëgg la nangam doy na amul wallaahi wallaahi beneen bi ci des mooy xoolal salaatu ala nabi tey boo jàppoon ba set boo toogoon jàppoo da ngaa bëgg julli tusbaar mbaa tàkkusaan du nangu mais salaatu ala nabi aajowul loolu bu la neexee. wallaahi wallaahi. waxtu wu la neex sañ ngaa tëdd ba guddi nga ne bërit. ne allahuma salli ala sayyidina muhammad allahu akbar amul fenn fuñ la koy tere moo tax nga xam ne yonent bi kenn du moom ndax fataba inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi yusalluna ala nabi kon nak ñun moo tax moo tax waajib la nak ñun wallahi wallahi wallahi ya ayu allazina amanu wallahi wallahi moo tax soo ko deful dafa mel ni da ngaa génn ci dairatul iman lu wér lu wér nga nit su nanguwul yonent bi lislaamam wirul loolu foog ñu bàyyi ci xel gis nga sëriñ bi. dafa am yoo xam ne mag ñi dañ ko dul ñemee wax. mais mboolem loo gis ci xeetu jaamu yàlla yi. yonent bee ci gën. wallaahi weer salaatu ala nabi moo ci gën. xamoo sëñ bi li tax ngay julli xam nga lu tax. wallaahi mooy yonent bee ñëw. wallaahi wallaahi bu ñëwul woon doo julli. wallaahi wallaahi xam nga lu tax ngay aj màkka. yonent bee ñëw. xam nga lu tax ngay génne azaka. yonent bee ñëw. parce que yooyu bu ñë bi mu ñëwagul. amut. Mhm. ci ak ñëwoo moom ci la ko yàlla farataale ci jullit ñi mhm. li tax ngay toog ba yaa nga xaaral ma jàpp xaaral ma jullit mhm. xaaral ma génne asaka yonent bee ñëw li tax ngay jàng alxuraan yonent bi. wallaahi lu wér lu wér lu wér. bi mu ñëwagul alxuraan ñëwagul. lu wér bi mu ñëwee la ko yàlla nag jox alxuraan. ne ko ëmb naa ci lépp maa farat naa fil kitaab min shay. lépp def naa ko ci biir. kon nag ku mel noonu. wallaahi su ayee. nga xam ne moomam kay yëpp waaye dama ne biñ weer yu ñu ko jagleel. su ñëwee. lu waay mën a def ci salaatu ala nabi na ko def. wallaahi wallaahi wallaahi wallaahi. lu waay mën a def ci salaatu ala nabi na ko def wax nga ko léegi boo bëggee sa àdduna jag boo bëggee sa àllaaxira defal loolu beneen bi ci des nit ñi nañ tàntal yonent bi fu ne wallaahi wallaahi li nga biir géej gi suñ ko manoon dañ fay tàntal yonent bi <laughs> wallaahi wallaahi <laughs> di fa gàmmul tax naka ñëkk def ñëpp def wallaahi wallaahi ñëpp nañ ko def gàmmu ajawul ci dem barab sàngam wala dem barab sàngam mm-hmm. ajawul ci baas wala ñàkk baas mm-hmm. dama ne toogal sa biir kër mm-hmm. di def salaatu ala nabi ak sa njaboot yaa ngay gàmmu ko yàlla defal amiin amiin kon ñu ngi invité ñëpp ci gàmm yi ñëpp dem màggal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam asalaamaaleykum waaleykum salaam wa rahmatullah imaam macha allah xam naa tàmbeenu xaw a kii waaye eh, bég nañ lool bégte gi moom foo ko àpp rek passé na macha allah eh, li nga fi jaare la lépp it nu ngi ñaan yàlla na nga ko waxee sami na waa tax na di ñaan yàlla it jotaay bi yàlla bu mu nekk sunu mujj jotaay ak yow di lay ñaanalit fa tabarakallah yàlla eh, yokk la wér yàlla yokk guddal fan bi nga yàgg lool fa laa di jiite njaboot gi am mbégte lool Mohamed eh, Oustaz Mohamed imam si am ak jotaay ak yow comme ni ma ko waxee woon eh, sëñ Malick bu fekkee am nga looy tàggatoo. sëñ di ñaanal njabootu Wadduha gépp mhm. suñu borom defal leen tawféex mhm. ak taysiir di ñaanal nga yàgg fi lool te wér amiin amiin ci bàkk Muhammad ak mbooleem ñiy déglu rajo bi ñëpp rek ak fu mën di nekk rek ñu mhm. ngi ñaanal xéewal ak yàgg ak wér amiin amiin ci bàkk Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam <laughs> asalaamaaleykum wa rahmatulahi salaam wa rahmatulah jërëjëf sëriñ Malick yal yàlla def la mag yàlla sàmm la la. sant bu baax gërëm tamit eh, sëñ di Sidibé bi nga xam ne moom moonu nekkaloon si technique bi di santi mbokk yi fi jot jaar yëpp ak ñaamoon yéene eh, dugg te ak siwun eh, fa tabarakalaa di ñaan yàlla lépp loo xam ne jub na fi nu sante ko ko jala jalaaluhu lu si yi nu koy jéggalu di ñaan yàlla may nu nu toog ak yéen yeneen i jotaay looloo nekkoon tey seen émission Wadduha wasalaamaaleykum wa rahmatullah wa barakaatuhu alhamdulilahi rabbil alamin xool si yonent yi doo ko gis soo ko dee xool si wàlli doo koy gis si xutbu samaan yi doo ko gis kooka daal mooy cundum Mamadou Abdallah yàgg naa gën kooka mooy Muhammadu Rasulullah